moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show Euh, moo leen di may seen émission bu mag bi lee mu di takk show troisième numéro de la semaine seen bu mag bi lee fii ci solution TV ci studio El Hadji Sid Lamine Niass Niass Abdallah ci la voix des sans voix Walfadjri ñu daal di sóobu ci liggéey bi daal di fas yéene ànd ak nga xam ne rek moom moo di Omar Bun Khatab Gueye di ñàmbat mu daal xam ne rek moom moo di Omar Camara artiste peintre ñu jóge fa daal di ànd ak nga xam ne rek moom moo di maa jigéen Diop ci actualité du jour sponsor leader victime di net son yi bu Diop su baaxee àlaaji ñu dem Omar nuyu naa la Guèye maa ngi lay fay bu baax a baax. di la mm. nuyu di la ziar. Mm. di nuyu Boubacar. Samba sant ko ñaanal di leen ñaanal suñu borom yokk leen wér. di nuyu El Hadj Ndiogou Mbengue Sarr. taalibe sëñ Sidi mu sëriñ Abdoulahad Mbacké di ko nuyu bu baax di nuyu maa jigéen madame Dieng. di ko nuyu bu baax ak waa Thiès ak yëpp ñu ngi leen di nuyu borom benn dëkk ñaari gaar. di nuyu Seydina Omar euh, sama turandoo doon détenu politique bi mu génneek léegi yàggul doon artiste peintre doon aussi membre Pastef euh, ñu fa yéene waxtaan ak moom ci condition de détention yi ak bàyyi bi ñu ko bàyyi ak bi ko bàyyi ak léegi ci lan la ne ak anam ya mu duggee woon ak yooyu yëpp dinañ ci wax ah dinañ profité aussi wax ci Ngagne Demba Touré euh, parce que mooy dernière actualité bi surtout que yéen a bokk Grand Yoff bokk benn parti nañ ci waxtaan du nuy waa régie ñëpp ñu moo doog toog ak Ablaye. Mm-hmm. di nuyu sëñ Sidi tay bu ñaas Cheikh Sambaka di ñuy waa waay ak waa Kër Massar yëpp di leen ñaanal jàmm bi ne détenu politique nag di ñaan ñi des génn. waaw loolu moom lu ñuy ñaan la. Mm-hmm. te ginnaaw yàlla da koy ñaan président Macky Sall. Mm-hmm. ñu naan ko teel ak na non téel ci biir bu ñu génn dañuy wax ak yooyu yëpp. du ay mbokkam waaw euh, dañ koy dugal ci lu mu xamul rek. lu baax. lu baax rek lu tudd boo koy def da koy continuer kon ñi ngi ñaan ñu bàyyi ñëpp mu am ci koo xam ne nag Kër Massar dama ko xam bu baax El Hadji Ali ba léegi moom bokkul ci ñi génn waaw mi ngi sàmm 3 yoroon place am di jaay nekk commerçant soxnaam amoon bébé ci moment boobu ñu koy jàpp ah mu doon kenn ci yaayam bu mu juumul hmm. waaw nan ko bàyyi daal ñu ngi koy ñaan ñaan nag lan mën ñun nan ñaan justice bi ñu bàyyi ko mu ñibbi ci këram incha allah ñu ngi koy bàyyi xel di bàyyi xel njaboot gi yëpp El Hadj Ali Loum kon ci kanam incha allah ñu dalal sunu gan. Mhm. Mhm. allez jërëjëf Omar bu nu Xataab Gueye euh, nu mu tudd El Hadj Ali yàlla na ko yàlla génn fi mu ne. yàlla mën na ko yàlla mën na lépp yàlla mën na lépp vraiment. maa nuyu na la. madame Dieng Saala Thioro jigéen. Mm, maa <laughs> ngi lay fay sukkay na mm-hmm. euh, di la ziar te lay ñaanal jàmm ju sax euh, dàkk di ko euh, ñaanal ñëpp di fay Omar nuyoo di ko ziar di ko wax waa Ceskaay itam ñu ngi lay nuyu di nuyu Alaaji Sadio meng nuyu suñu gan gi Seydina Omar moom itam nuyu nag téléspectateur ak internet ñuy suivre dem ba diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen. jàmm ñaanal ko suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat mbàkke yàlla suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalif ci biir réew mi yëpp li Omar wax rek kay dëgg ñu ñaanal euh, ba tey euh, ñi nga xam ne nii saay su nekk dañ leen daan toog fii di leen ñaanal muy détenu yi yàlla suñu borom gaaw génne leen ñoom ñëpp ba euh, dara loo xamante ne nii da leen fay dugalaat rek yàlla suñu boroom fankal leen ko ci kanam tuuti daañu ñëw nag ci nag mi nga xam ne nii suñu procureur ba woon muy Serigne Bassirou Gueye mi nga xam ne moo ko jiitee jamono ji Euh, renforcement bu ñu fa def te président Macky Sall euh, def li ni mel daañu ci ñëw léegi waxtaanee ko incha allah rabbi ajaratu. jërëjëf euh, Mage ñu nuyu ko ko nga xam ne rek moom moo di El Hadji Sanjogu Manga Manga ak Mboor góoru Njilaan Caare xalif général kulu jongama di soppay Sëriñ Sidi Musin Abdou Lahad Mbacké ibnu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul nuyu naa la El Hadji sugaa ñu ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow di dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaana mu yàgg fi tànn waaye ñu ngi nuyu di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziyaar wér nuyu bu baax sëriñ Xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarim wax laa nuyu kilifa dina yeewoo ci biir réew mi ñu ngi nuyu maman Dieynaba Fall kooku sunu maman la waaye ñu ngi mm-hmm. nuyu monsieur sunu tonton la di ko nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu Umar bun Xataab macha allah di am ci moom mbégteeg kontaante waaw di ko wax ne ko fi mu génn foofu la waaw ndaxte lu baax lu baax la tudd mm-hmm. boo ci nekkee bu la nit di wax ne la li ngay def baaxul boo yëgee xam ni ka lay wax loolu moo ne ci lu bon waaye yow yaa ngi ci lu baax mm-hmm. donc loolu mooy li am solo parce lu baax mënta bon kon boog nañu fexe la nga xam ne moom lañ doon tàmbali mu nekk lu ñu continuer mhm. parce que loolu mooy li nga xam ne mooy li ëpp solo te réew mi loolu la gën a soxla mhm. di nuyu bu baax it Umar macha allah Umar Camara waaw ñi ngi koy nuyu bu baax macha allah euh, di ko wax ne ko ñi ngi koy masawu ci mhm. coono yi nga xamante ni euh, jóge na ci jaar ci vraiment mu nekk loo xamante ni xam nga ñi ñii parensaay boo leen gisee lenn rek euh, ngay am ci ñoom muy ak cofeel parce que Euh, da ngay xam ni ay nit lañ yoo xam ni li leen dugal ci kaso du dara lu dul seen ngëm-ngëm ak seeni i idée ak euh, seen i gis-gis xam nga wut tamit féete loolu c'est très important te tamit da ngay gis ni bëgg seen réew moo ko waral parce que mënoon nañoo def ni ñëpp mais ñu daal di choisir am loo xamante ni bii ne bëgg nañu lii ñàkk ànd ak yow nag boo ci dugalee nit bu génnee tamit héros lay nekk rek moo tax it ku leen gis fonk leen naw leen donc loolu mooy li nga xam ne mooy li am donc ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm di ko wax ne ko am nañ mbégte dalal ko ci plateau bi di nuyu ma jigéen di am ci moom mbégte kontaan di ñëpp ñi nga xam ne ñu teewlu jërëjëf. su koy léegi nga yaa di ko sargal rek moom mi nga xam ne rek moom moo di Kamara Yille ah <laughs> donc ñu dem régie daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di Omar bun Xataab mu ñëw dalal ganam di euh, ki nga xam ne rek moom moo di am Omar Kamara. ama sa gana ngoog mm, Omar Camara ah, di nuyu baax na sëñ Habib Gaye mu xaddamul sëriñ Mansour ca Thiès ah, mu ngi dëkk jaxaw ñu koy ñaanal wér di sàkk ci ñun mu ñaanal ñu bu baax ñu ngi koy bàyyi xel di ko ñaanal ak njaboot gi di nuyu baax Omar Omar ñu bàyyi la nga nuyoo balaa ñu dugg ci waxtaan bi. d'accord merci bisimilah salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant ak ñi nga xam ne dañ seetaan yàlla def. Euh, li nga xam ne lu ñuy wax fii nit yi bañ ko déggee négatif ñu déggee ko positif maanaam wax bi lépp lu si dëng ñu xam ne ñun la lu si jub ñu xam ne yàlla la parce que wax yombul peut-être damay ne c'est la première fois ma toog nii tele di wax Walfadjri dafa mu nekk sama télé rajo bi nekk sama rajo moom rek laay déglu nem sakatuma bu ñuy nekk fële 100 mètres tamit loolu lañ doon déglu maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci invitation bi pour ma ñëw expliquer li nga xam ne moom laa daj ni ñu ma jàppee xam naa émission bi su gënee continuer dinaa expliquer nit ma jàppee ak lépp nu demee incha allah. incha allah jërëjëf Omar doon détenu politique bi nga génneeg léegi am na quinze jours euh, temps yi nag ñu gis benn vague ñu bari di génnandoo loolu dinañ ci dikk ci kanam mais actualité bi ñu dab xaw ñu bettu tuuti mais boo xawee xam yoon tuuti te ngañ dem ba gën ñu ko xam yoon. Euh, du la bett mooy euh, mu jigoon Mali ñibbisi ginnaaw exil bi mu defoon ngeen bokk Grand Yoff bi mu ñibbisee mbooloo dar ko. waaw mu def communication ci presse bi démb bi ñu déggee Aïssata Tall Sall rek am na fu xel jëm quoi parce que boo xoolee sax nit ñi ñu ngi koy publier naan ko génnaatal réew mi parce que ni Aïssata waxee da lay jàpp parce que bi mu waxee ca mandat d'arrêt yi dafa mel ne ci moom la doon junj te wàllu yoon ku nekk ci ko mandat d'arrêt international fu la fekk dala war a jàpp tey ñu xëy ne jàpp nañ ko yow déjà yow mi bokk ak moom parti bokk ak moom Grand Yoff nan nga dundee loolu aw affaire bi euh, man si suba si laa ko yëg te nekkoon na loo xam ne bettuñu parce que bu mu ñëwee gi dëggante nañu maanaam moom parce que comme li nga wax ñoo bokk Grand Yoff bokk parti bi balaa ñu ma jàpp tamit ñu ngi doon gisee maanaam moom ñu ngi doon dëggante parce que dafa nekk nit koo xam ne nag man bi ma gisee ne ñëw na parce que Diop Taïf sax moo ma koy informé après si laa dugg si YouTube bi ma gis ko mais bu ma gisee man xamoon naa ne xëlu ne moom su tegee fii tàng dañ koy jàpp moom xam na ko sax moom information boobu nekk na loo xam ne dafa leer si moom peut-être dafa ñëw tam pour ñu téye ko parce que léegi fii képp ku ñu téye ñun xam ne nu ñuy def ba ba ñu bàyyi la maanaam lépp lu si war dinañ ko def te du ànd ak benn violence boo xamante ne nii nit yi dañuy gisee ne Pastef ñu fa nekk ay nit yoo xamante ne nii duñu indi jàmm quoi maanaam ñun jàmm la ñuy wut te jàmm la ñu bëgg mais soo xoolee fan yii nii bu ñuy génnee nit yi ñëpp a kontaan dëkk bi amal jàmm ñëpp di liggéey benn coow amul. man dama yaakaar ne comme su ñëwee nii te xam naa ne peut-être dinañ ko téye mais peut-être xam naa dinañ ko bàyyi aussi quoi parce que suñ ko téyewaatee nii day indaat beneen problème parce que il faut ñu génnaat ne dañuy manifester parce que manifestation dafa nekk loo xam ne suñu droit la si nit nag suñ ko téyee mënuñu toog nii di ko seetaan parce que ñun tam suñu téyee moom du toog di ñu seetaan ñun pacte boobu la ñu signé suñu biir te gëm naa ne balaa loolu sax xam naa ne balaa ñu fiy jóge sax dinañ ko bàyyi mu ñibbi këram man gëm-gëm boobu laa am. Mm-hmm. parce que Sénégal instant bi ñëpp xam na ne jàmm bi fu mu féetee ak ñàkk jàmm mu féetee. Mm-hmm. maanaam euh, ki nga xamante ne deful dara liggéeykat la maanaam moom dañuy toog dañuy waxtaan dafa am sax kersa si nit. Mm-hmm. pour mu sigg xool la sax problème la kooku yaakaar naa euh, fu ñu ko bëgg yóbbu foofu du place am parce que man dem naa fa. kaso gis naa lu fa nekk. du place am jegewu fa sax gis nga ñi fay dugalaate képp ko fa dugg non. doo fa dugali sax nit am na loo xam ne sax su ko defee da ne non kii neen ko jéem xoolal feneen fu ñu koy yóbbu mais kii du fii la war a dugg te gëm naa ne incha allah dinañ ko bàyyi parce que nit ku baax la dëkk bi commencé woon na am jàmm nit ñu commencé woon dox di dem fu nekk mais suñ defaatee nii dañuy indaat leneen. dañuy indaat leneen mais yow arrestation bi fi mu ñëwee baaxul. mooy la fait moom mu ñëw même moom boo xoolee discours bu responsable par man déglu naa ko mu wax ba jeexal. Mm-hmm. mais da ngay dem na ba gërëm la président de la république Macky Sall. na nit ku bu defee lu baax danga ko war a gërëmee mais démb ministre bi wax tey ñu xëy jëli ko téye ko les mêmes charges yu ñu tegoon Sonko ñu jëlaat ko moom tamit tegaat ko entreprise terroriste mais loolu est-ce que bokk na ci lii des décrispé maanaam dalal mbir mi parce que euh, est-ce que dina tax ngeen wóolu kilifa yi dëgg-dëgg parce que man man moom wax naa ko fii man wóoluwuma leen loolu moom sama responsabilité la ndax dañuy bëgg a yàgg ak mais yow est-ce que nekkul ni bàyyi boobu ñu doon bàyyi yëpp pour yootal ñenn ñi jàpp leen la rek parce que boobu nguur gi xaw na jekk jekkadi ñu ne noonu nan bàyyi quelque temps nit ñi xaw def léegi ñu nekk ca lañ nekkoon est que nekkul ni nguur gi logique am bi mu nekkoon mi ngi ci. la mais ñoom xanaa ku leen ñàkk xam mais ñun ñi nga xam ne waa Pastef même Sénégal xam nañ leen maanaam ñoom lépp lu ñuy def ñun gëmuñu ko nekkul sax lu ñu gëm parce que ñun lii nii toog nañ ko wax ne ñun ñuy bàyyee nii ak ñu ñuy bàyyee nii. sawaay am na lu nekk si xelam. parce que nekkul koo xamante ne nii franchement ku ko xam dëgg dëgg dëgg di ko déglu da nga xam ne ne kii nekkul koo xamante ne nii maanaam man euh, man situation suñu président bi man mënuma ko comprendre ko maanaam fayantoo ko man bu ma sax fayantoo mooy ku la def dara ku la def dara kooku ngay fayantoo man gëmoon naa ne xam naa ne bàyyi yun ñuy bàyyi nii am na lu ñuy yottal man bu mu wàccee fii man a jóob tey ñu ngi wax mu ne ko sa waay de fan yu néew dinañ ko téye mu ne ma looy wax nii mu ne ko lu leer mu ne ko kii dinañ ko téye parce que président Macky Sall ku ko xam xam ne ne su bàyyee lii rek am na leneen lu muy jàpp si mais nekkul koo xam ne ne day bàyyi pour bàyyi mais man pour man dafa am ñoo xam ne danaa war a wax ak moom. parce que ñëpp xam na ne ñàkk jàmb fu mu féetee. mais imagine toi comme li ma la wax nii xoolal bu ñu commencé bàyyi booy jàmm nu mu amee jàmm dafa commencé am Sénégal. gaa yi commencé sentir jàmm ba may gis ay nit yi def vidéo di xoolal dëkk bi léegi am na jàmm gisoo ku taal puno gisoo dara dara xew ñëpp nekk si jàmm yaa ngi comprendre sa waaye suñu ñëwee ba téyewaat ko nii man man man du ma bett man du ma bett mais am naa ne gëm-gëm ne. est-ce que du tamit yéen amoo lañ ci responsabilité quelque part mooy bi bi ga booy génnandoo. Mhm. communication bi mel ne dañuy kokkali nguur gi quoi est-ce que nekkul loolu ñoo leen ñëgloo. waaw mais man nguuru Macky Sall moom defantekat la ñuy ñekk. waaw jikkoy gone lan yor. waaw loolu tax est ce que nekkul ni nag xam seen jikko ba pare di leen topp ci li ñuy bañ aussi juróolu leen lii. waaw mais dëgg la am na loo xamante ne nii ñun xamoon nañ ko bu ñuy génn di wax yëpp xamoon na ne risque bu si nekk. Mhm. xamoon na ne xële nekk waa ji maanaam moom buggul defet moom defet buggu ko il faut mu am lu mu def pour jéem a soulager boppam parce que ñun bu ñuy wax nit yi ñun ñu koy wax. yéen yaa ngeen di wax mais am na sax ñoo xam ne des nañ si kaso bi xam nga instant yi génn booy yi di génn arrêté nañ ko parce que ñun dañ doon dem ba si buntu kaso bi ñun suñu association bi dañ doon dem foofu pour ku génn ñu mun la jox paas nga mun a dem ñu jël sa coordonnée xam si looy nekk après xam si looy yëngu. Mhm. yaa ngi comprendre loolu moom nekkul loo xamante ne nii bett nañu ñun bu ñu doon wax xamoon nañ ne problème dina am mhm. parce que dina gis ne eh parce que foofu ku fa dugg doo ko mën a sax tey soo fa duggee ba génn. non il faut nga nettali lu fa nekk man ba tey ma la wax nii chaque jour damay tëdd di gént chaque jour maanaam nekkin bu ma nekkoon foofu damay tëdd sama néeg di gént pour man maa ngi fa ba tey si biir gént bi ñu ne bàyyi nañ ma bàyyi ñu ma léegi su ma demee ba commencé ximbileeku di yeewu sama bët bi laay ubbi tuuti di xool xam ndax dëgg la est-ce que man bàyyi nañ ma parce que bu ma ko gëm man bàyyi buñ ma bàyyi man pour man ay rêve la rêve man dama yaakaar ne ay rêve la ba tey nii gëw ko ba tey damay toog sama kër nii. léegi explique ko ñu condition détention voilà voilà maanaam euh, damay jiitoo fu ñu ma jàppee noonu. voilà voilà fi ñu ma jàppoo foofu laa jiitoo parce que man Grand Yoff laa jógee euh, sama artiste peintre waay damay yëngu si bâtiment wàllu peintre décoration si plaza fii bokk naa ñu fi liggéey waaw hôtel bi nekk fii si plaza yoo bokk naa ñu fa liggéey léegi nag euh, sama benn copain mu woo ma mu ne ma dafa am chantier ginnaaw kër seex Béthio. Mhm, parce que dafa waaw Mermoz dafa am foofu chantier. léegi naa ñëw ma defal ko devis mën na ko noonoo man instant bi euh, damay damay génn quoi dafa am fu may dem suba dafa am fu may dem foofu du ma mën a ñëw mhm. maanaam dama mel ni ku ko sentiroon quoi parce que bëggu moon jaar côté boobu fekk le 16 mars bi si la ñu convoqué président Sonko. mu mhm. ne ma non il faut nga ñëw rek nga jàppale ma carreleur la quoi nga defal ma devis bi vite fait après sax mën naa yow ñu ànd dem quoi. mu ne ko ok am benn problème léegi dinaa dem bu ma yeewoo ma sangu julli odoo sama saak parce que des fois mun nga dem rek ñu ne la. essayal ñu néeg bi xoolal ñu fii defal ñu lii yaa ngi comprendre mhm. yóbbaale sama ne yóbbaale yëpp pour mën a def devis ma dem ba boulangerie zone ma dugg ma jënd mburu génn ne léegi su ma rombee kuy jaay euh, brochette wala dara wala ñebbe ma jënd def sama mburu xam nga rek affaire chantier ñun noonu la ñuy dundee chantier ma fekk ñaari oto auto gendarmerie yu taxaw rond point kii euh, euh, boulangerie zone duy ba mu fees gendarmerie ñu taxaw ak seen barrières yi taxaw ma romb seen diggante quoi nuyu leen mais kenn moo ma fay ma dox lu mot dix quinze pas comme ça ñu woo ma ma tourné bu ma tourné fekk ay sept heures et demi la quoi waa ji mu ne ma kaay. fekk ñoom ñaan ñi ngi taxaw mu ne ma kaay ma nii mu waa yow ma dëpp ma ñëw. bu ma dëppee ma ñëw mu ne ma ne ko ça va bien mu ne ma foo jëm mu ne ko damay liggéey mu ne ne ko ginnaaw kër Cheikh Béthio fii lan ma woo Santé mu xool sa portable ma def nii ma génne sama portable mu def nii mu gis photo président Sonko mu ne ma non ngay manifester ma ne nii mais. waaw photo bi mën a mën a ma mën a ma waaw moom laa defoon nii mën a ma mën a ma non da ngay manifester mën a ko damay manifester mën a ma waaw da manifester mën a ko ku woote manifestation mën ma non da manifester mën ko mais dama bëgg kay nga wax ma kii moo woote manifestation pour man sax manifestation aussi comme yéen soo leen ko terewee ni ngeen di taxawee nii dinaa gis booy ñii daw di sànni xeer mais man ak yow ñi ngi taxaw gisuma kenn kuy daw gisuma kenn kuy sànni xeer mag bu de comme man su ma doon manifester du sept heures laay beneen waa ji na ko way kii lu mu wax dëgg la bàyyi ko mu dem mu ne ko non non danaa soxla ay nit. danaa soxla ay nit waa nit yu ñu jàpp. maanaam ñoom dañ leen yónni pour ñu jàpp maanaam ku romb pour ñu jàpp la quoi après si laa noppalu nag si laa xam ne ne fii ay nekk di wax tamit. maanaam moom daa bëgg jàpp di jàpp waaw maa bëgg jàpp quoi. ay nit la soxla waaw ay nit la ñu soxla waaw nii la ko wax carrément ay nit la ñu soxla non nan ko jàpp nan ko jàpp dana soxla ay nit après si laa ne ah man moom xam nga dama nekk ko xam ne dama gaaw énervé ma ne fii jarutu may wax garawut léegi ñu ne ma dugal ma dugg bu mu duggee si oto bi oto bi oto bi di wër wër wër wër wër wala balaa sax balaa loolu am na benn booy bu ñuy jàpp alsaan ndeysaan léegi xamante nañu sax ñoo bokk léegi dossier. noo mujjee ak mburu mi mburu mi nga jëndoon. mburu mi ma jëndee moom ñoom lu la fekkal dañ lay sa dañ koy sànni. dañ ko sànni dañ kaa eh. bi nekk lu ma metti xamuñu nu mu def ba am mburu bi xamuñu ndax mburu bi dama dan ma ko sarax xamuñu nu ma def ba am mburu bi ñu sànni mu sànni mburu bi ba pare jàpp ma fii jàpp ma mel ni ku jàpp benn xaw ma lan lan lañ koy waxee sax bu jumaan sax kenn du ko waaw agresseur waaw. nga ni booy bi bi benn booy moo doon ñëw nii mu ngi sol moyen Sénégal bu mu ñëwee noonu ba si oto bi fekk maa ngi waaj a dugg léegi mu ne mu ne booy bi kaay booy bi ñëw mu ne booy bi foo jëm booy bi ne ko Colobane laa jëm damay jënd daal la. mu ne ko waa moyen bi nga sol nee na ko waa moyen Sénégal la booy bi comprendre bi mu ne ko waa moyen Sénégal la léegi mu ne ko nuut fii ne ko waa Pastef ñoom ñooy sol yi ñoo yore drapeau waaw nee na ñoom ñoo yor drapeau. Oh, ñoom ñooy sal kii bi way drapeau Sénégal. <laughs> mooy Sénégal. parce que parce que nga bokk mooy Sénégal bu am kii bi ni ñun mën ne ko ñii ñooy waa Sonko ñoom ñooy def lii dugal booy bi dugg ma gis fa loo loo xam ne tam moo ma gën a nakar yi gën ma metti maanaam booy bi dañ ko dóor ba mu xëm waa ji dural ko ba mu yeew man ma xool mu ne non man oto bi ma dugg nii man risque laa dugg est-ce que lii la. est-ce que duñ ay nervi waa mu ne man est-ce que parce que oto bi oto gendarmerie la yëre yu ñu sol yëre la mais ñu ngi def kàggul quoi mu ne man oto bi ma dugg nii risque la parce que mënu gëm ne kii dafa dóor booy ba booy bi xam mu dóoraat booy ba booy bi yeewu parce que bu ma duggee dana ma yow du ma la mais loolu man moo ma jaaxal quoi mu ne ko mais sa waay booy bi da nga koy rey rek mu mbañ ma ne ma silence mobile jàpp sama dindi sama laafa bi jàpp sama rasa bi nii def nii jàpp mbaj pan ne ma noppil rek ma tàkk man moom dama gaaw a mer quoi ma sànni rek ma fixé ko def ko nii xool ko nii rek mu jékki-jékki rek mu dindi kii bi mu dindi kagul bi man ak moom ñu jàkkaarloo nii mu xool ma koy xool bu baax après ma ne ko yow sax bi nga yor nii sax du kanamu gendarmerie billaay wallaay parce que man awma lu may ragal si doomu aadama ma ne ko kanam bi nga yor nii du kanam gendarmerie man sama kanam sax moo gën a nekk sa kanam mais ma en plus ngay waxaat rek mu dóor ma jël kii bu ñuy kiiwee seen kii bu ñuy kiiwee dóor ma ko fii mooy matraque fi ñuy dugal racramosel yi parce que kanam bi dafa am ay sika quoi mel nii quoi man am na si ñu mu ko doon gis quoi kanam boobu am na si ñoo xam ne dama ko doon gis si ñoom mais pas moom voilà xam nga man Grand Yoff laa dëkk damay gis façon nit ku nekk man a ko yow man gëw ma sax na yow gendarmerie la noonu après gars yi mi ne ko non non bàyyil ki ngay dóor mu arrêté dóor bi après ñu jékki-jékki euh, dawal ba ay une yooyu ma gis Euh, nit ci commencé di sànni xeer daw yi di dàqante nii ñu mu génnee benn vidéo boo xam ne ñu ngi jàpp président Sonko di ko pamti pamti kon dañ leen a téye foofu lañ ma fa téye. bi ah, yéen a ngi ci oto bi. dañ changé oto. Ah. changé nañ ma trois oto. mu ne ma naa xool vidéo boobu force parce que dama gis ñu koy pamte pamte dajj oto bi ma gis nga seen waa ji du dara yaa ngi koy gis ma ne ma xool mu ne ma damay xool force ma ne ko mais sa waay lii su ma ko xoolee ba intérêt laa si am mu ma mu ne ma mais sa président la mais da koy xool. dañ koy xool comme ñu koy def ngeen xam ne yéen doo leen dara en plus yéen ngeen woote garsa garsa ñu neex yéen mën na ko non garsa garsa kan kan la ñu neex yéen mu ne ko non sa waay amoo information mu ne ma ne ko mais may ko mu expliqué la mooy garsa garsa mu bu yomb la ku la dóor nga fayu ku la lukki nga lukki ko loolu la mais du ñu neex yéen président Sonko mu koy wax moom ak Macky Sall lay wax ak nguuram bi ak lu bon lu ñu def si dëkk bi mais du ñu neex yéen ñu neex yéen ay frère la ñu sa mais ma xam ne ñoom tam amuñu information ñu dawal ma dugal ma si beneen oto ma dugg si oto boobu gis tamit booy doj fa loo xamante ne nii man sax dama ne dama ne est-ce que du tey la Sénégal di yem parce que dama gis booy yu ñu dóor ñi ñu damm seen loxo yi ñu damm seen tànk yi si biir oto bi deret man sax dama man après damaa découragé si àdduna ñu dugalaat ma beneen oto di heures ñu yóbbu ma bu ñu demee gendarmerie kii euh, Wakaam bu ñu yeggee xam dañuy def rang ku nekk su ñëwee waa ji day wax. Euh, nun la jàppee waxal nga wax ñu bind léegi man damaa wax ni ma jàppee mu ne ma non lii du ma ko bind da ngay dem dangay ngay ñibbi yow waa ji mu ne ko non non non bindal ne ko non du ma ko ñoom ñaar ñiy bëgg werante mu ne ko sa waay bindal ñu dem fii yàlla moo fi nekk mu ne ma en plus da ngay wax mu ne ko non bind sa waay bindal rek ñu bind ñu dugal ñu si giri bi si laa gis ay ñoom Lamine Niass yeneen gars yi yooyu ma gis fekk leen foofu ñu nekk foofu di dund tamit dund bi nga xamante ne dund bu métti sax. parce que dañuy dugal ay néeg yu ndaw moo fa ne ñu dugal ñu fi ñu fees dell ba pare karo yi foofu la gars yi di def lépp karo yi salte ñu nekk fa ñu jóge foofu vendredi jeudi la ñuy jàpp vendredi ñu dem ñu dem parquet bu ñu amee parquet ñu am retour de parquet ñu yóbbu ñu central ñu toog fa vendredi samedi euh, dimanche euh, léegi lundi ñu dem ñu amaat retour de parquet delluwaat Wakam parce que après da ngay sonn man li ma bëggoon mooy ñu defeere ma. dama sonnoon quoi dama bëggoon ñu déféré ma dama ko doon laaj sax gars yi mais kañ lañ ñuy déféré mu ne non dañ leen di bàyyi mu ne ko non man instant bi dama sonn bëgg ngeen déféré ma rek ma dem tëddi foofu xaw ma nag mu mel nag mais ma dem tëddi parce que mujj après maar naa quoi léegi jeudi bi ñu dem juge Mamadou Seck ñu dem menama Oumar Camara yow njot nañ da nga doon manifester mais demal toog ma taxaw nii quoi comme man su ma meree nit ki dama lay fixé su nekkee mënuma ma la def dara dama lay fixé loxo yow di la xool quoi pour nga xam ne ne kii kontaanul quoi mu ne ma lan la ma ne ko tekk rek di ko xool rek kii bi mu ne ma pénitencier mu ne ma kañ ñu dem ma ne ko en tout cas daal ma xamal la benn affaire yow ak ñi ma jàpp yëpp mënu ma leen baal mu ne ma non camarade da ngay dem rek dangay ngay ñëwaat nii fan yi nii dugg na fii génne fii juge Mamadou Seck lii la ma wax da ngay dem da ngay ñëwaat fan yi rek amul problème mu ne ko amul problème ñu dem yóbbu ñu xuuf ñu fekk si biir kii bi wax naa ñu daggal ma rasta yi ñu dagg rasta yi waaw rasta yi ñu dagg ko parce que après dama ko noonu ñàkk quoi dama gendarmerie laa ko daggee sama benn frère ñëw ma jokkoo ko pour mu yóbbul ma ko après soo demee fa dañ lay xuuf sumbi la comme ça yaay ni mu la juree di la wax onkal maanaam di la di la di la kii quoi ñàkkaloo fayda quoi man ñàkkaloo fayda laa ko gis parce que laaj naa leen motif bi pour lan la mais mënuñu la wax motif bi lan la maanaam pour humilier la quoi ñu dem bu ñu yegsee Euh, ñu ngi rang ñun parce que ñun bëri woon nañu nekkoon na deux cent et quelques jour bu ñuy déféré deux cent et quelques te ñu ngi fay bàyyi nit yi ñu ngi fees delloo ci euh, fële tribunal ñu dem ñu nekk trente euh, trente quatre personnes chambre quarantine ñu ubbi chambre quarantine mais gis nga salaire bi bu mu kiiwee dama arrière garde bi teg ma loxo dama dugal ba pare ma dugg fa gis ay façon nit joo xamante ne bu mu leen gëjee gis xaw ma ban ban ba maanaam ban jamono la. ay nit yu nit yu indice yàlla na ma yàlla baal ñu dugal ñu ne dugg leen ñu dugg ñu dugg fekk nit bi fees dell fees dell sa tànk sax mënoo ko def nii fees dell dell dell dell ñu ñëw ñeneen la dugg leen ñu dugg ñu laaj ñu fa leen signé ñu ne fii la ñu signé ñu ne ca dem leen toog bu ñuy demee toog ñu jox ñu guddi bi fekk des dencoon nañu fa benn cere baas yi mais cere baas yi bi gis nga bu ma dugalee sama loxo sax ba ba làmb cere bi damaa génnee dugaluma ko sama gémmiñ parce que cere bi moo wow te affaire bi yal na ma yàlla bal dafa am xet lekk bi dafa am xet su duggee si néeg bi da ngay am envie génn néeg bi léegi noonu lañ noon la ñu ñëwee léegi lu gën a neex mooy guddi bi heure tëdd heure tëdd man maa ngi imaginer ma ne fii nit amul fu muy tëdd heure bi jot ñeneen ñu acca ñëw leen taxaw leen ñu rang def quatre rang bu ñu defee quatre rang ñeneen ñu ok léegi ba suba léegi dangay taxaw danaa taxaw trois mois vingt trois heures ngay taxaw ba six heures du matin. vingt trois heures ba six heures du matin ma taxaw nii taxaw ba suñu tànk yi néew yi léegi bu ñu jógee si taxaw boobu euh, trois mois yi après ñeneen ñu ñëw tey da ngeen di toog nag te toog moo gën a métti toog bi ñaari miir ñaari miir yu jàkkaarloo la dañuy teg fii ni ci bës teg la bës ay ponkal ñoo lay bës toog bi da ngay dem toog ba soo yeewoo suba teel da ne sa yi damm na pour nga génn sax appel six heures day nekk problème ñu toog ñu toog deux mois après bu ñu duggee aw tam si yeneen mois bi ñu ne tëdd tëdd bi moo gën a garaaw man su ma tëddalee sax damay génn parce que sama butit di day mel ni luy génn parce que en plus ñun ñu ngi fay bu ñuy taxaw ñu ngi fay dugg weeru koor dañ faa dugg deux jours ñu woor sooy ndogu da ngay taxaw parce que dafa fees munoo toog sooy ndogu da ngay obligé taxaw quoi wala nga dem ba si buntu douche bi douche bi waaw parce que ñun bu ñu rentré après ñu ngi fay fekk bu ñu defee calcul xam nga dafa am euh, kiiw li si mburu bi dafay ñëw si bessan boobu ñu ngi nekk cent quatre-vingts personnes si néeg boobu cent quatre-vingts personnes néeg bi tàng jër jër mais su la paquetee gis nga kii bu ñu teg bassan bi soo si dëggee sa tànk day mel ni comme paano ndox la ñu sotti day kii sax ndox waa ndax ñaq yi ñaq yi ba pare ñu dugg fa fekk gars yi am ay góom ay yoo xam ne doo comprendre ñu collé la affaire dafa demoon ba contaminé ñu jàpp ñu ñun quoi ma nekkuloon fa ay booy yu ndaw parce que maa ngi dégg ministre bi di wax amul benn mineur bu fa nekk man maa fa gis ay boo yoo xam ne ñii quinze ans la ñu am ñii seize ans maa leen gis nii teg leen bët waaw ñu dund fa loo xamante ne nii man yaakaar moon sax lii mus na am si doomu aadama man yaakaar naa ku def dara sax warul dund lii sakatuma man mi pourtant damaa yor sama liggéey de mënoon naa dem toog sama kër jàpp sama ñàmbur te man li ma doon def pour outil la dem liggéey pour am dara mais man lépp luy yàq réew saa su nekk ñun suñu toogee dañ siy waxtaan ñun doxuñu si man ku ma xool ñi ma xam yëpp moo tax bu ñu ma jàppee sama waa kër yëpp a jommi ñëpp a waaru xamuñu lu ñuy def yóbbu nañu fan Umar 100 mètres xam nañu nu ma mel sama comportement am na foo xam ne mënu ma fa dund mais sonnoon naa fa trop mais li ma dimbale woon mooy booy yi fa nekkoon ay booy yu ndaw laa nekkaloon mais kanam booy yi mënu ma wane faiblesse il faut ma taxawu leen xam naa ñu fa nekk damay obligé suñu yeewoo suba teel booy yëpp dama leen di dajale nii su ma leen dajalee ñoom ñëpp ñu toog ma ne léegi nu ñuy def mooy ñun ñoo bokk kaa ñu nax ñii bokkuñu kaa li ma bëgg mooy nañu fréquenter seen i biir parce que am na ay borom ñaari tur yi am na ñoo xamante ne nii parce que loolu sax après booy rëccuñu si man def naa tout mais booy rëccuñu am na ki fa nekk koo xam ne moom ma ëpp baat foofu moom ëpp kaddu lu mu wax loolu la ñuy def moo jël si benn booy du ko doon dugal si duus bi. parce que man affaire dama koy yéex a que booy yi dama doon waxtaan ak ñoom damay toog di waxtaan ñoom gis nañ ma man sax su may wax am yenn négocié du si am damay wax ñoom ñëpp ñuy dégg mais leen ñii ak ñu naan ñii bokkuñu kaa man bugguma ngeen di dem foofu dama bëgg ngeen déggal ma toog sama wet ba ñoom ñu jëlal ma fa en mais euh, waa ji fa nekk su may waxanteex booy parce que booy bi dama gis fan semaine boobu yëpp day tëdd su ma defee nii yaram bi yaram bi day tàng jër bi ne ko mais yow lan moo la dam mais du ñeme wax parce que waa ji dafa ne ko soo waxee dama lay miita diis mu lay miite nga dem dix walla neuf am na néeg yu nekk foofu ñoo gën a métti yooyu cent cinquante lay def personne ñoo gën a métti foofu moom da ngay taxaw rek foofu amul tëdd foofu ñoom ñëpp dañuy taxaw mu ne ko soo waxee dama lay miite foofu parce que xam nga la moo tax waa jooju da ko def defaat ko defaat ko ñu su ko defee soo ko waxee dañ lay miite garde yi ñoo lay jël miite la. waaw loolu la ko def garde yi ñoo lay jël miite la moom su comme su la ko defee nga dem wax ko ko nga dem wax ko garde yi garde dañ lay miite yow. il est moom ñu miite ko de mais yow la ñuy ne yow am ci biir. waaw mais ñoom aussi sans fils <laughs> ñoom yoon gardien seen ah. que waxtaan naa ñoom man nu ma gisee ñuy wax la leen ne ñii seen yoon nekk aussi bi parce que affaire bi la moo ñu dimbale dafa am ñoo xam ne danaa jóge camp pénal danaa jóge camp pénal ñu am beneen problème ñu indaat leen pour juger leen am na benn parent de ça je me rappelle très bien ñu ngi koy ans te dina ans mu dese ko 5 ans mu amaat problème mu ñëw. ñoom nag danaa tombé problème boobu. te politiciens yi dañuy sóoraale ñooñu quoi. léegi man bon li nga xamante ni moom laa doon wax. Mhm. bon xam nga sànq Omar bi nga koy junj quoi. ci njëlbeen gi. que ni ñu ngi libéré ñu ngi doon libéré di apaiser pour nit ñi génn après mu mel ni wax yi moom moo freiné waat li nga xam ni mooy aliir boobu mais comme que yéen boo kii organiser ngeen. parti ngeen nekk boo xamante ni bi parti bu organisé ngeen parce que gis naa ni nga xamante ni bi noonu la gars yi def taxaw ci bunt bi bu nit ñi ñëwee ñu jox leen paas ñu daal di dem parce que loolu moo gën a daal xel nga bàyyi nit ñi ci guddi gi rek ñuy wëndeelu hmm. est-ce que fas yéene ngeen tamit organiser wu def comité boo xamante ni bi tey yii nga xamante ni bi moom kii au lieu que mu yem rek ci ay wax nii ci télé yi et cetera hmm. mais aussi tamit ngeen euh, fexe jaar ci yoon ngir xeex yenn yi nga xamante ni bi teg nañ leen ko parce que dégg naa ñu bari ñoo xamante ni bi tey dañu wane ni ñoom lii leen dal euh, ñoom ko xam nga sa kaa da nga doon xëy di liggéey am na ñeneen ñu bari ñoo xamante ni bi noonu la maanaam nit ki dafa la jàpp ci bànneexu bakkanam maanaam tekkal la loo xamante ni bi jaaduwul ndax fu ngeen di jaar pour jaar ci yoon pour xeex yi nga xamante ni bi moom mooy mbir yooyu nga xam ni dal na ci seen kaw est ngeen pour jéem Euh, wane seen kii ba noppi daati wut ay avocat yoo xamante ni bi tey parce que am na ñoo xam ne xam ngeen peut-être ñi nga xam ne teg nañ leen yenn yi nga xam ni di ngeen leen yóbbu ci yoon parce que loolu mooy li nga xam ni moom mooy but bi quoi parce que tamit bu fekkee ne dafa am ñu nekk ci ay kii yor yenn privilège yi ba noppi di ci def lu leen neex ñooñu tamit dafa jot ñu war leen a yóbbu ci yoon di jënti seen biir est-ce que yéen a ngi ci yoon yooyu parce que <laughs> expliquer jéem ko xeex ci yoon. torture waaw waaw torture lañ leen def. crime contre l'humanité ah, waaw est-ce que yéen war nañ leen yóbbu CPI. waaw même bu dul fii sax tubaab leen parce que lii war ñu ko bàyyi. est-ce que yéen kii ngeen ci lool. Hmm. waaw loolu moom ñun ñu ngi siy waxtaan suñu biir bu baax ñu ngi siy waxtaan suñu biir ñu ngi koy dox ñu ngi koy wax. parce que xam nañ ne instant bii nii hmm. du mu a du mun a sotti. parce que soo ko yóbbee si kilo dóor yow kilo dóor soo yóbbee foofu sa plainte lan la lay wax. non mais am na feneen fu ngeen ko mën a yóbbu. am loo xam ne bu leen ko bàyyi mu sedd. non waaw mais parce que parce que lu mel nii tey parce que tey li leen dal nii. bu ngeen bàyyi nii rek nettali ko bàyyi ko noonu. amul leen loo xam ne bi def ngeen procédure yoon bu boobaa dina dalaat yeneen nit. c'est pour protéger ñeneen ñi nga xam ne lu mel nii mën na leen a dal. il faut que. xeex ko ci jamono ji nga xamante ni bi kii jaar ci yoon xool yan yoon ngeen di jaar pour ñooñu kii nga xam ni ëllëg si biir bu ñu joxee kenn kii it mu xam ni ñu mel nii kii kat defoon nañ fi lu mel nii mais ay daan yu mel nii dal na ci seen kaw est-ce que nan ngeen fas yéene. ñun loolu préparé ko bi yow. waaw ba nga xamee ko. waaw si def na ni man ku ma jàpp laa wax même ku ma jàpp solo woon kagul mais su toogee léegi léegi ma xamee ko. kooku dama ko xàmmee bu baax yàlla dafa def dama ko xool bu baax ba xàmmee ko. ki ma bu ko bàyyi mu dóor waaw ki ma dóor foofu dem parce que maanaam moom lu ko lu ko yoolee mooy si kawoo mi waaw fu mu nekk si moom foo laa xàmmee bu baax te su ma ko gisee dama koy xàmmee mais comme li nga wax ñun loolu yëpp préparé na ko pour déposer plainte pour sénégalais xam ne ñun déposer nañu plainte léegi nga xam naa ne nag nguur bi su demee ba jóge fi mm-hmm. loolu après si lañ koy toog parce ko bàyyi nii man mënuñu ma yàqal sama liggéey yàq liggéey ñeneen jàpp ay booy yoo xam ne dañ leen dóor am na booy yoo xam ne ba tey buntu rëbës seen yaay dafa am bor foofu bor dafa am bor foofu man booy dañ ma doon wax lépp. man démb mais ay pexe la yor. presque non Azura tane na léegi Azura ñoo nekk maanaam handicapé dafa handicapé presque. Azura tane na ñaari pexe lay yor. non tane na sax léegi tane na Azura dafa doon toog ay jours yoo xam ne du jóg. mais mais man sànq bi ngay door dama la dégg nga ne yow da nga dem ba bi nga génnee sax saay soo tëddee yaa ngi gént ne ba xam yow est-ce que réellement sax yow yaa ngi ci liberté est-ce que yéen euh, waroo leen ngeen dem ñu topp leen psychologue yi topp leen carrément parce que di wax bi nii sax wala ngay tëdd loolu mën na dem ba indi la traumatisme boo xamante ne nii wala problème mu bopp ma ñaanaluma leen ko yàlla parce que lii mën na loo nit donc su ngeen amul suivi rek du du baax parce que li ngay expliqué nii keneen expliqué na beneen cas bu gën a métti keneen noonu keneen noonu da ngeen soxla ku leen rapproché di leen euh, kii si noonu. loolu sax loolu ka suñu membre Pastef yi ñu ngi ñuy proposé loolu. Mhm. ñu ngi ñuy proposé loolu parce que man expliqué naa leen sama cas. man instant bii nii euh, maanaam li may dal si côté boobu dafa bëri comme sama néeg nii soo ñëwee fëgg rek damay tiit. sama fii bi day maanaam su ma gisee tam oto xam nga ñun fu ñu dëkk oto police day romb rek su ma gisee oto por di police même ku may waxal dina ko xam ne ne kii nekkatul après damay obligé absenté démb rek maa ngi taxaw oto police mu ngi romb mais dama absenté nekkatuma parce que saa su nekk damay ne est-ce du man la ñuy ñëw jël si est du man la ñuy ñëw jàpp parce que affaire bi moom ma la traumatise sax daf ma indi affaire yi nga xamante ne nii. sa wàllu wérgu yaram. wa sama wàllu wër wérgu yaram loolu euh, dem naa si hôpital aussi dem naa si hôpital euh, xool nan ma rajo nan ma jox na ma ay garab parce que comme li ma la wax sama tànk yi sama ndigg yi sama lépp ay métti sama lëpp day metti mais man li ma gën a yitteel sax moo nekk comme soxna si lu mu wax nii maanaam man instant bi lu may tiital dafay yomb day facile maanaam même su ma gisee ay nit yu bëri damay tiit damay ne est-ce que su ma ñëwee fii dinaa fi am jàmm est-ce que duñ ma téye wala jàppal bàyyi même instant bi su may dem nii sax su ma gisee gendarmerie fii damay jéggi tali bële nee lay doxee su suñu nekkee côté bi damay dem côté bële parce que man dama leen ñemeetul. Euh, léegi Omar euh, bi ñu leen di bàyyi nan lañ leen di wax dina jékki-jékki rek bàyyi leen ngeen. waaw ñun daal man daal damay euh, lundi. te nee nan da ngeen a signé pare doog a dem. signé non non foofu doo signé foofu empreinte ngay teg nii foofu kenn du signé. léegi lan lañ leen wax bi ngeen di dem. non man daal damaa toog sama néeg xam nga ñun añ bi suñu añ ñun ñun détenus politiques yi 18 heures lañ koy añ bu ñuy añ rek ñu chef de chambre ne ma camara kaay wuyu. ma ñëw taxaw rek garde bi mu ne ma yaay Umar Camara mu ne waaw mu ne ma sa mandat dépôt ma wax sa yaay lu mu tudd sa papa ma wax mu ne ma dangay ngay ñibbi. waaw waaw nii man sama ñibbi daf maa bett musuma ko xaw ma ko sax. d'accord wallaay daf ma bett léegi xale bi nga wax ne da nga doon dem ba à un moment donné yaramam daf doon tàng foofu ak infirmerie bi ñuy wax ne mi ngi ci biir euh, kaso yi naka lañ doon doxalee ak ni nga xamante ne nii parfois dañuy feebar wala. foofu foofu infirmerie franchement loolu moom je suis mais infirmerie benn garab la am. soo dammee moom lan lay jox soo wagee mooy moom lan lay jox. lu la dal moom lan lay jox. am na ay boo yoo xam ne non tab yi maa day taal yi dinaa ñëw foofu xaaral ma tontu si dinaa ñëw foofu booy boobu paracétamol la nga ko jox ba pare miite ko yóbbu ko néeg bu metti moom ki ka def loolu. Euh, ñi fa nekkoon ancien compte yi ñoo ne kii su fi desee guddi dañ koy rey parce que pénitencier yi day ne kii du génn néeg bi ñu nekk chef de chambre bi nag xam parce que kooku mooy chef de chambre bi ñu ne kii su fi desee kon yóbbu dem leen su fi desee ñun dañ koy rey gar gars yi loolu la ñu waxoon. moo tax ñu dind ko nag. pour sauver ko moo ñu koy transféré. merci beaucoup yóbbu ko néeg bu gën a neex mooy néeg yu ndaw yi fii bos yi di nekk. Hmm. ko yóbbu néeg bu gën a neex ma ça veut dire que foofu c' est pas hmm. loolu c' est mais infirmerie bi daal. infirmerie amul dara man feebar naa fa man dama yeewu benn suba teel di miir. waaw di miir. parce que man sama lekk moo bëriwul woon. man su ma lekkee daggati mburu bu ñu may jox. lekk bi nga bëggul woon. waaw non lekk bi mënu ma ko lekk non non lekk kese bi moom mosuma ko lekk. lekk bi yow suñ ko obbi woon fii yéen ñëpp ay génn fii. dafay xeeñ. man ko mais am na ñu dañuy togg. naa ku nga xam ne pénitencier la mais kaso yi ñu nekk ñoom dañuy wax ne dañuy am ay chef cuisinier ñu leen di toggal. Ah, yoo xam naa ñi ngay wax loolu xam nga ñaan la yi la. Ah, dafa am benn femme buy ñëw fa bokkul de. ah bokkul yi ñeme ñu lekk lekk boobu ah, lekk ak ñun lu ñuy lekk du benn de. ok bokkul de. pétansin yi benn femme mooy leen di moo leen di toggal. chaque jour dafay ñëw déedéet déedéet déedéet. bu ko doon dégg ndox bu manqué. yu boobu robinet robinet daf daan tëj foofu. boobu boobu boobu man boobu sax sama rongoñ dafa génn. parce que lu tax damaa gis loo xamante ne nii ndeysaan si télé rek laa ko doon gisee dëkk yu am guerre yi ndeysaan Euh, robinet dafa tëj amuñu ndox doo sax naan naan sax doo ko def parce que man Casamance kii bi laa doon naan benn ndox laa doon jënd di ko naan. waaw moom laa doon jënd di ko naan mais après dama obligé bàyyi ko parce que lu tax sama booy amuñu lu ñu naan te man yoruma doole bi ma mënee jëndee ndox ñu ñëpp ñuy naan dama ko arrêté jënd après mu manqué sax si bitig bi ñun ñooy toog nii nii la si ni gémmiñu merci beaucoup loolu yàlla da ko defoon. léegi nag pénitenciers yi dañuy ñëw xaar ba guddi ñun ñu ngi nekk cent quatre-vingts personnes dix litres la ñuy jël ubbi bunt bi puus leen ñu puus ñu sànni ko kan moo koy naan kenn du ko naan kenn du ko naan foofu la ko gars yi di xëccoo ba mu tuuru ndax mar waaye mais noo koy naanee quatre-vingt-dix personnes man du ma sax bougé parce que dafa ay ponkal yu fa nekk ñi nga xam ne ñun suñu booy yi bougé sax duñ ko def fu ñu toog la ñuy toog mais su nekkoon xëccoo ñun duñu am noonu la koy sàndee bopp ñoom ñu jàpp ko xam nga rek ñoom dañ faa yàgg te mooy loolu. Mhm. seen bopp yi yàlla na ma yàlla jégal te baal ma parce que seen communication sax yàlla na ma yàlla jégal. parce que lu ñuy wax passé na ay année soixante la ñuy wax ñu xëccoo sotti affaire bi foofu yëpp mu tuuru dama toog foofu sama rongoñ génn quoi ma gis sama boy ñu mar mar boo xamante ne nii mar bu jéggi dayoo. mar bu jéggi dayoo nu ñuy def ba naan xamuñu ko mu ne leen ma ne 7 décembre bi nga jóg nga fëgg bi booy yi dañuy mu ne ma bunt bi du ma ko fëgg ma ne ko billaay bunt bi da nga koy fëgg ma ko lii ñu dem si garde yi sax ñu rey ma parce que soo fëggee bunt suñu ñëwee da indil problème parce que ñoom maanaam si ni mar naan du seen problème ma ne ko force da ngay fëgg ñu wax foofu jàppante foofu ma ne ko da ngay fëgg gars yi ñëw taxaw bunt bi kenn du ko fëgg ma ne ko bunt bi dañ koy fëgg booy yi du ñu deex mar dañuy naan force benn imam bi mu ngi foofu ponkal la nii mu ñëw jàppale ma imam la mooy si ni bi mu ñëw jàppale ma si combat bi pousse gars yi ñu fëgg bunt bi garde yi ñëw ñu ne leen booy dana mar te léegi ñu dee mënuñu naan depuis ci suba naanuñu soo demee du sax doo doo doo utiliser ndox parce que ndox amul soo amee ndox booy utiliser da koy naan ndox amul noonu leen def garde pénitentiaire yi ñëw aalu si ko imam bi ma taxaw man tamit aalu ñu ne ma dañ may yóbbu ñu ne kenn du ko yóbbu dañuy indi ndox seen chef de post bi ñëw ñu expliqué ko problème bi mu génnee ñaari nit ñu dem indi di ay ay vingt litre ñu naan sangu moom toog nañ trois semaine du ñu sangu non sangu bi du sangu bi du problème sangu bi ñu nekk woon suñu problème ñun suñu problème xamala la woon naan ba pare ñuy wokkutu ba suñu yaram yi di dagg da ngay ñaqutooy xepp noonu ngay tëddee soo yeewoo noonu ngay nekkee trois semaine amul sangu trois semaine doo sangu waaw ñu dund fa loo xamante ne nii tab yi ay booy yi am tab yoo xamante ne nii tab bi su tojee dafa mel ni comme bal fetal lañ ko dóor man mosuma gis loolu si àdduna tab yu garaaw si ay loxo fii su tojee dafay def pax oh, soo dugalee sa soo dugalee sa baaraam loolu day jàll dem yow moom la wut Omar euh, wutal psychologue de Omar na yi tey moom yóbbu nga leen quoi. Hmm, non mais <laughs> foofu am na loo xam ne sax ne am na loo xam ne du ma ko mën a wax. waaw waaw waaw damay bàyyi ba lépp jeex. parce que su ma ko waxee xam naa dinañ ma jël si. <laughs> ban ban appel ngay lancer. waaw mais li may lancer mooy comme sa wér géram ak sa liggéey depuis huit mois. liggéey bi la doon teral. waaw liggéey bi waaw nga bàyyi la. loo bëgg a appel bi nga lancer appel ah, rek. appel bu may lancer mooy euh, avant tout. man sama liggéey instant bi yàqu na poulailler laa yoroon mënutuma dugal benn ginaar parce que li ma yoroon yëpp man bu ma dug damaa dugaloon ginaar bu ma nekkee kaso après ginaar yi gàllankoor am si diggante bi mhm. waaw peut yàlla moo ko namee noonu loolu am aussi tamit yoroon naa ay sance borom sànce sax xam naa ñu ngi may dégg suñu ma gisee peut-être dinañ am benn benn kersa parce que bu ñu yóndee sama frère yi nu mu waxee ax man munuñu ko xaar kii kaso la nekk liggéey bi dañ koy jox keneen pour man waroon na gën a rafet quoi yàlla def après ñoom ñu jël seen liggéey man bu ma génnee nii maa ngi nii ba tey liggéeyuma maa ngi nekk di dem di jàppante mais sama mag yi instant bi ñoo may dépanner ñoo may dimbale. waaw ah, da ngay joxe waale sa numéro parce que pour gars yi. Euh, waaw sama numéro bi est-ce que ak fi réew hmm. liggéey day liggéey. waaw ah. sama numéro bu may sama numéro bi nga xam ne moom laay liggéey non man kay. waaw ah. instant moom fële moom lu fa nekk ragalatuma ko quoi parce que dund naa ko ba pare. mais bëgg naa mu dindi sama mu dañ sama bopp bi quoi man loolu nekk na loo xamante ne. Mm-hmm. nekk na première chose bi nga xam ne loolu laa gën a bëgg quoi li nga xam ne dina dalal sama xel. Ah. ba nga xam ne su ma gisatee ay nit. wala nit laal sama buntu wala dara guddi bi nii du ma mën a nelaw man damay ne dina jël si soxna si mu ngi Paris. waaw mu ngi Paris essant bi euh, euh, euh, loolu moom soxla naa ko. ku ma dimbale waaw sama numéro mu ngi nekk 77. 686. 38 69. voilà 77 77. 686 38 69. macha allah kon gars képp koo xam ne daal am nga sànce. 77 boo ko bëgg a jox ak yooyu jaar leen ci waaw. 38 waaw 38 69. 38 69. waaw mais bëgg naa gërëm ñi ma doon jàppale. comme sama grand allez y ñoo li si mel ni Ismaïla Camara sama mag ba moo di indi sama añ chaque jour. kooku moom franchement sama doomu bàyyi la mais. soo ñu gisee da ngeen ne ñoo bokk ndeex baay li si mel ni Seydina kamara seex naa ñëw bu ndaw ñoo sama jabar mag yi ñoo doon togg añ sama jabar tamit nekk Paris taxawuma tamit jàppale ma si lépp dafa noonu sax ñëw mën ne ko noonoo uh-huh. situation yu ma nekk nii bul ñëw toogal bi si jëm ñi moodu mm-hmm. moodu Qatar maa ngi koy gërëm di ko sant franchement bi ma nekkee fee mm-hmm. bi ma demee ba mënatuma dara ñoo ma doon dimbale di ma dugalal affaire yu nekk sama waa koñ tam di ma jàppale jàppale bi nga xam ne sama booy yi waa kafe ba uh-huh. dajaleel ma xaalis bu bëri indil ma fu may nekk foofu ndeysaan way maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama jabar Kumba Sissoko uh-huh. waaw di gërëm sama waa kër yëpp di gërëm Ismaïla Camara sama mag sa surtout surf lay jabaxate ku baax a ngi noonu di sant tamit waa Pastef aussi uh-huh. di sant waa Pastef parce que keroog ñoo ma woo yóbbu ma ba hôpital ñu xool sama yaram bi bindil ma garab bi ma génn ñu jëndal ma ko vite fait bu xaaruñu sax suba wala gannaaw suba léegi li may wax rek mooy nañu focus. Mm-hmm. jàkkaarloo ko waa ji. parce que président buy wax fokkis mooy dëkk bi maanaam ni muy baaxee. waaw parce que dëkk bi nit yi sonn nañu. Mm-hmm. Sénégal gars yi liggéey ñu borom gaal yi ñu doon dem Espagne ñu ngi foofu fees dell. macha allah képp kuy dem Espagne suñu la jàppee rëbës la lay yóbbu. billaay ñu ngi foofu sonn seen waa kër yi sonn. billaay Diop Taïf tamit daf ñu doon jàppale bu mu génnee. Mm. dafa doon jël xaalisam di jënd lu nekk. si ni nekk xam nga maa nekkoon responsable lépp li ñëw sama loxo lay jaar. Uh-huh. su ñëwee am na ay boy étranger yu fa nekkoon ñoom la ñu jàpp ne dañuy manifester ay pas su ñëwee ñoom laay ñi ko séddale. ba pare soo ko jox ay ñoom nani souvent ndeysaan. pas ginee la waa Guinée Bissau. yàlla na yàlla waaw maa ngi leen remercier tamit si invitation bi ngeen may éviter sant naa leen gërëm naa leen <laughs> waaw kontaan naa trop si invitation bi. yàlla na yàlla mottali ña nga xam ne ña fa nekk yàlla na sunu borom génneeg jàmm. bañ delluwaat ci tey sunu borom mën na ko yàlla na ko def li lay wax ni ñi danoo solidaire da ngay xool ñi génn. Mm-hmm. ñoom seen souci yëpp mooy ñi des ci biir. waaw gis naa sam benn xarit Ibrahima Lo presque lu mu liggéey. da koy delluwaat foofu. sama booy dañ ma woo démb démb ñu ngi foofu. Dramé daf ma woo démb. bi ma wooyee démb mën na ko noo fan yi rek mm-hmm. fan yi di ngeen génn yéen bàyyi leen ba pare. incha allah wallaay daf maa woo démb fekk maa ngi sama léegi di la conseil pour téléphone bi rek moo tax ku la mën a jàppale financièrement wala jox la liggéey mais des fois am ñu ne ay takk der lan mm-hmm. di la woo di la jéem a yooyu yëpp dee ko sóor ñii euh, moo tax it euh, euh, ñii laaj naan lan moo tax gars yi génn ak lu mën a génn en tout cas nit ñi am nañ mbégte ci génn gi loolu jarul di poser ay question di wax naan lu tax si li ma bëggoon Ah, dama kaa dégglu quoi mu wax ñun bu ñu doon génn am na lu ñu signé waaw waaw man affaire bi jaaxal ma quoi man bëgg naa maanaam waaw man moo ma jaaxal man daal ñëw naa ñene ma contrôle judiciaire tegal sa loxo ma teg sama baaraam ñene ma ñibbil waaw mais kenn waxuma leneen waaw man bëgg naa maanaam mu mu leeral ñu quoi signé bi quoi waaw waaw hmm. mu leeral ñu signé bi loolu am na solo trop parce que dama <laughs> kaa dégglu ma ne mais waa ji moom lu muy nii man daal day na waa jaajëf Omar merci jërëjëf jërëjëf di la ñaanal nga bañ a delluwaat foofu ñu nekk ci biir yëpp ñu génn génn waaw yi waa saawan baawan waaw sànke yi man yitte woon ko si aussi sànke yi <laughs> bëgg naa sànke yi ñëw waaw ah, te te kilifa yi moom trop te kilifa yi mhm. ah, jàpp ji waaw ah, surtout ñuy fare ci réew mi waaw ku dul baale kenn du la baal mhm. ay Laurent Gbagbo jaar nan fii lu ne jaar na fi nan même bu dee am na ku def nan bal xale yi ñu dem. génn ah dem ñibbi. parce que wala fi nee na ku dul sóor dee lu neex waaye def. nguur gi bu dee moo tax ñu def day jeex moom. Mm. bu leen neexee day jeex bu leen naxaree day jeex. sonn nañu foofu de. waaw kon nañ génnee doomu jàmbur ñi leen di ñagloo. toog ci télé yi naan leen noo bu xale yi génn bu diw génn bu du génn ñooñu seen doom nekk fi seen jarbaat nekk. waaw te kaso jarul yéene kenn moog deew yam de. am na ku ñu invité woon fii seen plateau fii mu toog fi di wax loolu ne ñi fa nekk bu leen bàyyi dama ne non ki yëgul lu xew. wallaay xamul lu xew. xamul loo xam kenn waru ko wax. bii daay du waxi nit billaay kii yëgul lu xew mais man mii nii nii nii nii dëgg la président mag Sall man moo ma jàppalu de. Mm. mais tey suñ ko naroon tëj damay ne déedéet. wallaay parce que foofu nu mu nekk fu ma nekk mm. yéenewu ma ko ko. Ah, waaw kon la jaajëf Euh, Omar jërëjëf Omar yónnee na ma Omar. incha allah jërëjëf euh, jërëjëf euh, jërëjëf Modou Diouf euh, donc mi ngi fi sooy bu naa la. fay naa la Adja di la ñaanal yàlla jàmm di am mbégte jàkkaarloowaat ak yéen fii la ci seen émission Taku soow gërëm leen sant leen nuyu ma jigéen bu baax a baax nuyu la yooyu tamit Cheikh Boubacar nuyu waale Aana xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke Alaaji Sa Njogu Mbeng tey nag moom a sponsorisé ci mbaxana yi Alaaji Alaaji moom a sponsorisé maa ngi koy ñuy baax di ko jaajëfal. xam naa euh, fii ak suba mën naa am ma changé style. man ay kab laay sol incha allah. nuyu ko nuyu sëñ Sidi moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacké ñaanal ko yàgg mu loolu te ànd wér ak mbooleem ñëw ci kër gi di ko jàppale Omar Bun Khattab Gueye futur maire de Kër Massar comme ni nga ko waxee nag dëgg la kab ngay sol kon boog saa dégg na la ah. ci kanam tuuti ñu ñëw ci <laughs> euh, naa bokk rek depuis daal naa bokk yàgg na nag xaw ma nag lu tax ñu génne ko bu yàggul nag nee na fi génn booy jaaxal na ko tax na ñu ngi koy def lu ne ci réseaux sociaux yi dinaa ci ñëw incha allah. jërëjëf waaw suka comme nu ma la ko waxee rek bi ñuy ndorteel ni euh, nga xamante ne ni ñoo jiite kuréel gi di nag ñoom nag président Macky Sall ginnaaw conseil des ministres ba mu amaloon rek ñu daal di examiner. Euh, mbirum OFNAC yóbbu ko ca assemblée ba ñu daal di ko fay voté moom nag daan nay li nga xamante ne nii rek moo di seeni ay pouvoir ñoom l'office nationale de la lutte contre la fraude et la corruption te euh, kii nga xamante ne nii moo di Bassirou Gueye nekkoon euh, procureur de la République moo ko jiite waaye nag li ñu seetlu mooy que ni privilège yi non renforcement bi Euh, bokk na ci rek ñoom léegi dina dinañuy mën di euh, saytu ak euh, sàkku ngir rek ñu daal di placer ñi nga xamante ni nii dañoo saytu seen i dossier garde à vue te aussi seen i pouvoir bokk na ci ñuy ñuy def ay investigation ci yenn mbir yi ñi nemmeeku ci biir réew mi te comme ni niñ ko waxee rek ci jëm ci mbirum corruption waaye bu ñu seetloo ñi nga xamante ne nii ñoo di waa société civile ñu gën ci xam euh, Moundiaye Cissé bu l'OMG 3D ak Babacar Gueye ak euh, ñi jiite kuréel googule ñoom nag ñi ngi sàkku ci OFNAC ginnaaw euh, seeni doole ak yokk seen mandat bi nga xamante ni nii ñetti at la woon ñu jël ko yóbbu ko juróomi at ñoom nag nee nañu nañu daal di moytu rek di dugg ci coowal politique ndaxte bokkul ak lenn li nga xamante ne ni moo di kuréel gi Omar Gueye loolu lañu ñu euh, seetlu ne tey euh, président bi boobu ba tey ñu ngi koy wax ci euh, journal yi yokk na renforcer na daal OFNAC jëlee mandat bi trois ans yóbbu ko cinq ans ginnaaw bañ ko yóbboo ci assemblée nationale daal di koy voté. ab loi moom ab loi rek moo ko fiy jëlee. Hmm. mooy comme Macky Sall jeexal na yokk dooley OFNAC kii ñëw. di président man li may sàkku. Hmm. mooy mu tas OFNAC bi. président bi ñëwaat. waaw jële fa Serigne Bassirou Gueye. Hmm. waaw jële ko parce que man dama jàpp ni waru ko jiite. mbokk ngay la nag mais dama jàpp ni waru ko jiite pour plusieurs raisons mais du ma dikk ci raisons yi tax. Hmm. lii mais loolu sama position la. parce que nag Serigne Bassirou du tey dafay am jaar-jaar. ci am jaar am ay doxalin. xam te li naan. kiy diriger dafa war a nekk un bon exemple day tax ñi muy diriger xam fa la teg seen tànk ak fa la jaar loolu de Sénégal waruñ jël ni rek fal ko pour man fal rek pour fal man ànduma ci dañoo war a xool ci côté moralité ci côté personnalité xool jaar-jaaram beneen bi ci topp mooy nag bu deen danoo yokk dooleem pour mu liggéey gëm naa ni liggéey boobu du ko mës a def. Hmm. Macky Sall bi muy créé nag jamonoy créé la ak Karim mm. ñu ne ah na mu wax ni. Mm. nag dama ko créé pour sama régime yi pour ñi fi. jóge jóge la ba of nag sosoo ci réew mi ak tey ji ah, ba nitu Macky lan kalaame ci OFNAC mm. mbir mi leer ba ay daan tegu ci bu amee ñun yéguñu ko kon OFNAC la taxoon mu jug te Macky Sall waxoon ne moo tax mu jug jëfewuñ ko mooy xeex corruption tey jii indice yi natt corruption ci àddina bi waa forum civil di ko def at mun ko nattee Sénégal day gën a dellu ginnaaw kon corruption ak ger jugee ko fi parce que bu dee nii ñi ko fi war a jëlee ñoom lañ koy jiiñ la sedd Lamine doon wax naan ci Sénégal moo neex sàcc su ndaw si mag gi ñoo ne dañuy àtte sàcc su ndaw si. waaw mos dégg seet la mais mën a sàcc yu mag yi ñeneen dañuy àtte ak sàcc su ndaw si daf mel ne nag la mu doon wax noonu loolu jugee gu fi benn xaalisu Covid bi mi ngi nii bu dee nii bëgg nan mu leer wala ñu am yaakaar ci of nag loolu la waroon njëkka leeral parce que junni milliard Covid ba tey jii France ay rapport Cour des comptes génn fi laal ñoo xam ne ay autorité lañ wala ay dignitaires yoo xam ne ñu ngi ci régime Macky Sall kenn waxul ñoo def de mais dal leen tuumaal. mais ñun bëggoon nañ mu leer ba sotti ba ñu xam fa of nag mujj ak ñun wala corps de contrôle bu mu mënti doon nguuru Macky Sall lu tax corps de contrôle yooyu bu mu ci taxawal ñun suñu xel du ci dal bu dee nii enquête day du topp sàcc di ko sàcc ba mu nekk ab opposant moom mun nañ ko jàpp mais bu ñu dee topp nit di ko topp di ko topp di ko topp ba mu dugg ci seen nguur day mel ne la mu defoon seetal nag te dafa am benn exemple bu may joxee mm-hmm. te loolu moo tax man ma jàpp ne mbiri transparence ak leeral ci nguuru Macky Sall mm-hmm. duñ ci gaaw a egg bu ci mujj mooy Amadou Ba corruption lañ ko jiiñee conseil constitutionnel bu dee of nag dafa mën a liggéey mm-hmm. na njëkkee liggéey bi foofu mais Jibril Ngom ab député ab mandataire la bu yeewi nekk Matam waaw ñu ne dafa sàcc ay kayitu yeewi d'accord ñi wër sàcc bi di ko sàcc di ko wër di ko wër ba fekk biir palais président di ko dalal. d'accord <laughs> kooku bu nee la dinaa leeral dina leer. waaw doy na ah, waar ñu gis ko ci wetu Farba Ngom mu taxaw. waaw te ab sàcc bu wër la. d'accord di ko dax ba fekk biir présidence mu taxaw. d'accord. sooy bu euh, euh, euh, dégg nga de Bassirou Gueye de moom pouvoir yi mu am léegi bokk na ci muy jox ay instructions su gisee ni koo xamante ne nii dañ ko jiiñ maanaam wa wàllum enrichissement illicite Euh, mu jox leen ay ordre ngir enquête yi ñuy mëne ñoom officier de police yi bokk na ci pouvoir bi ñu leen jox. waa jërëjëf ma jigéen am na solo xam nga mënuma gëm ni su fekk li may faral di wax ci loi tubaab nag mën na lu ne. Mhm. léegi bu fekkee président Macky Sall institution yu jub yu dëgër moo ko tax a jóg. Mhm. ci régime am avant muy muy muy muy yokk ay doole ak renforcer. Mhm. dafa am ay bànqaas yu dëgër yu fi nekkoon wala ñu yu ñu jàpp ni dafa dëgër ñu gis. ñu leen di nërmeel ci régime am te àdduwu ci muy ñaari juge yoo xam ne ku ci nekk da nga atte Sénégal yëpp di xaar ñu jëfe ci régime am jëfewuñ kon foofu am na lu ñu bàyyi ginnaaw lu ñu waroon a dëgëral ci wàllu juge ñu jàpp ni ñooy kenn yu gën a dëgër ci réew mi muy justice ñu daal di koy bàyyi neenal ko ñu demati ba yàgg Sénat mi nekk bokk ci ñi organiser élection yi bokkoon ci ñi àddu ni nañu jox Ousmane Sonko ay fichier mu dem ñu tas Sénat bi ñu layee ko ni seen mandat jeexoon na bu yàgg mm-hmm. léegi bu ñu demee ba tey ñu yokk mbaadu suñu xel day fay dem ci lii ba ayson doon wax ni dafa am kuñ bëgg duma ci kanam te pour ñu duma ko faaw ñu jaarale ko fii ndax of nag bu njëkk da daan dénoncé rek waaye léegi dañu ne ko da ah bu la neexee di dénoncé waaye bu la neexee di jàpp oh. mbaadu dafa am kuñ bëgg duma euh, ëllëg loolu dafa am leneen loo xam ne dafay teeyal suñu xel man daal gëwuma daal te sëñ Basiiru mi nga xam ne itam dañ ko ko dénk sëñ Basiiru bu yàgg dafa am luñ ko tuumaal te ki ko tuumaaloon moom kooka yoon nee na ko set nga ci dossier Adji Sarr mu Ousmane Sonko te Ousmane Sonko moom am na lu mu tuumaaloon Serigne Bassirou Gueye ba pare ah, ni dafa bokkoon ci li ko teg lii ah. léegi dañoo waroon a leeral ba pare bala ñu ko dénk luy enquête ah. ñu leeral mbiram ba pare ndax dafa neex nga am kilifa mu jiite ñu ni dafa kiling mais Serigne Bassirou Gueye même bu jiitee même bu fekkee loolu ay accusation la dañ ko waroon a seetal ba pare ci wàllu yoon ni taqewu ci laalewu ci ñu doog koo dénk banqaas bu mag boobu d'accord alaaji euh, dégg nga mbir yi ni mu tëddee euh, seen mandat jóge na ñetti at dem juróomi at waaye nag waa société civile li ñuy sàkku rek euh, ci kuréel googule mooy que ni bépp combat politique ñoom nañ ci génne seen loxo ba mu set rek wolof dane mhm. yokk cere dolli ñeex waaye man bu cere ji jeexee looy dolli ñeex loolu moo jaax ñu naan ñeex mi. dañuy naan ñeex mi. ñeexu suuf eh. dañ koy naan. ñu naan ñeex. <laughs> yokk cere doon di <laughs> jeex waaye cere ji jeex da ñu naan xam nga président Macky Sall. jamono ji daa warata yokk wala muy wàññi parce que moom yokk na mandat ma ngay yokkaat ay mandat xam nga na bàyyi mandat yi muy yokk. parce que moom fi mu toll nii moom dafa mel ni moom léegi dafa yor ay mandat rek di taw yi <laughs> yaa ngi dégg fi mu toll nii moom wax dëgg fa yàlla eh, moom dafa dafa jeexal waaye mel ni dafa yëngu ni moom jeex na xam naa nag nit mbir mi jeexee bett na ko. Ah. parce que waaw parce que xam nga mbir moom buy jeex léeg-léeg da lay bett parce que xam nga pareen saay pexe euh, ndawa damay dégg ndawa naan pexe di yàqoo cim xel. Mm-hmm. waaw booy toog di xalaat di tëral say pexe mën ngaa tëral pexe bu nice ne yëf yi nii lay demee loolu mooy xel contrainte yi nga xamante ni bi nag mooy am ci boo koy réaliser mooy loolu moo tax gis nga ku ñëw ak projet am rek mhm. sa projet day nice fine parce que tënk nga lépp ci mu xel ne bu ma defee nii lii dem commerce am na commerçant yu bari looloo leen daale dañuy tëdd ci seen kër naan jënd lii jaaye ko lii jënd lii jaayee ko lii jënd parfum lebal moodu lebal kii daal di daanu bàyyi parce que na ko xalaatee woon mhm. demeewu réalité terrain bi lebal nga sukaar mu bañ a fay di dawloo wala nga lebal <laughs> Moodu mu yeex a fay bénéfice ba nga dem dugal ko fële lekk ko comprendre loolu mooy indi daanu mm. léegi nag yooyu mooy yi nga xamante ni bii mooy li ne mm. maanaam xam nga tey man damay wax ne président Macky Sall bi muy soog a falu di indi ay of nag ak yi mu doon def yooyu yëpp mm. euh, amoon na gis-gisu defar wax dëgg fa yàlla man loolu moom jàpp naa ni loolu amoon na ci njëlbeen gi mais dafa am fu ko mbir yi rëccee quoi te mbir yi man jàpp naa li ko rëccal ay mbokkam ak jege ñaaleem li mu waxoon ne du protéger kenn dafa dem ba ci biir xol bi la topp moo ko dem nag dugal nag ba mu jàpp ni mbir yi mooy loolu comprendre nga. Mm. fi mu toll nii nag jamono ji ñu toll nii moom. Mm. li ñu naan papa pam man su ma doon moom damay comporté wu comportement koo xam ni jeexal naa ci jamono ji duma ma yokkal kenn lenn du ma def lenn damay fexe rek. négocier nu ñu mën a organiser élection yi nit ñi dem ci jàmm ci loolu laay euh, loolu laay ne mais du ma nekk ci leneen loo xamante ni bi day tax nit ñi di jéem a xalaat na daal ah, kii lu tax muy def lii lu tax muy def lii comprendre nga parce que loolu def nga ko pendant fukki at ak ñaar di def ñu naan lu tax muy def lii lu tax muy def léegi nag da nga war a def loo xam ne bii ñëpp dañu xam ni lii ngay def c'est pour. rectifier le tir. defaraat yi fi mu daa dee jeex mais bu ko doonul woon jàll alaaji. assemblée bu ma waxal waxu assemblée xam nga man nekkuma ci ay xam nga yow ma jigéen la yow vraiment beneen saa damay wax yow nga may ñàddal député yow c'est que yow téye laa pour di ma ñàddal pour may dal ci kaw xam <laughs> nga xam nga kii day ñëw pour li nga xamante ni bii. ah mais alaaj question la suñu mbaxana yi dafa niroo wala qu'est-ce qu'il y a. waaw dañoo niroo couleur yee bokkul rek. il faut. nga moytu sama mbaxane yi nag. ah, ah day mbaxane yi di dem. ah mais yaa ma ci dugal. <laughs> Ah, député yi ñoo moo dàq sa mbaxane yi nga doon sol moom. ah moo dàq wax dañ la ko. Ah. waaw dàq foofu waaw ah. député yi may maag député yi ak ki mu fal Basirou Gueye. c'est que man non man Basirou Gueye. wax dëgg fa yàlla nekkuma di wax ci lenn ci Basirou Gueye xam nga man kiy fale laa wax. du ma ne ci ki ñu fal waaw mais ko ñoo ko. waaw mais kiy fale xam nga c'est dama ne ki koy jox dooleeg li mu koy jox dama ko bëgg a wax ne ko. Ah. jamono jiñ toll nii moom. Ah. waratula dugg ci eh, angle boobu fi mu toll nii xam nga lii des maanaam moom dafa war a gaaw comme système bi mu doon def di génne xale yi ci kaso yi di def yenn maanaam ñu jëm ci yoon woo xamante ni bii. apaisement day am nit ñi day kii maanaam nit ñi dootuñu nekk naan lu muy waaj lu muy nar lu muy kii. Mhm. yooyu baaxul ko quoi comprendre nga parce que yenn yi day indi nit ñi daan lu muy xalaat lu tax mu def lii lu tax mu def lii parce que nit ñi depuis démb bi ñu ko kiiwee rek ñu ngi ko commencé partage naan dafa mel ni dafa am comprendre nga ku ne ngi am say kii te loolu nag warutuloo dugal yu mel noonu ci bopp nit ñi. Mhm. maanaam dafa war a def loo xamante ni bii rek ñëpp dañuy xam ni yoon wi mu jaar mooy yoonu jàmm yoon la woo xamante ni bii libéré xale yi. ñu dellu ci njaboot yi comprendre nga bu ko defee nga xamante ni ñi nga xamante ni bi tey ñoom ay Ousmane Sonko ay Bassirou nga bàyyi leen ñu dellu ci seen kër dellu ci seen njaboot ñu daa dee teg réew mi ci yoon dem ci ay élection ki gagné sénégalais yi ñu fal ko mu daa dee dem loolu mooy li nga xam ne fala ko sénégalais yi di xaar quoi. ayca mi jeex na Oumar loolu la ma sukkaat di wax ni jeex na tey waajee jël kii da ngaa xaabaabal. non man xaabaabal lu ma le kii moo xaabaabal invité Omar. voilà <laughs> ngi noonu ajaratu di leen jox euh, di daje altine ak beneen actualité du jour. jërëjëf allah solo lool euh, amatina solo donc ñu daal dem régie daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di El Hadj Modou Diouf ñu ànd ak suñu sponsor leader yi. solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jóob ngir dëggal a wéral ni suñu garab yi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jëlee fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yii ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbbu ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te efficace te amul benn effet secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asthme bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay fermé li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneen yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. jërëjëf El Hadji Modou Diouf ñu àndoon ak suñu sponsor lu lu ci mel li nga xam ne rek moom moo di kàppee moom sa bopp moom sa alal yombul sa dund loolooy kàppee du seen moroom bokkut ak ñoom nuroowut ak ñoom i feem kon gars nañ daw wutali ko kàppee mooy kii gën boole ko man ak ak solution mi solutionné jàkkaarloo wal fajri leeru jamono la voix des sans voix sénégalais yee ko waxal seen bopp daal ne boutique solution bii de moom la ñuy daw wutali lu tax ndaxte boutique solution moo leen doy moo leen saf ndaxte li nga xam ne moom lay jaay wér na wóor na kon gaa yi daw leen wutali bu di solution. ki ko mën nag ki koy jéem duñu benn te fii ci réew mi la ci mi la nekk nii mm. jàkkaarloog wal fajit leeru jamono ah, donc ñu daal dem régi daal di ànd ak euh, son yi bu ci victime di net son yi bu Adja tey def nga indil Adja saa looy <laughs> la sukaa déedéet man de maa la ñoom ñaar ah, maa maa jigéen ah. xoolam bi doy na waar man de léegi man wax dëgg yàlla. dama jigéen gën a sacrifier boppam ah, ah léeg du jar sax maanaam li ne ci moom li koy xool la ba muy kii moo tax. <laughs> xoolam ah. ah, ah te mi ngi sànq boppam de. maa ngi hmm. yow koo xoolut xanaa xam ne Modou Modou moo bari sutura rek Modou bu doon insérer ndaw si lu bari. Hmm. léegi jëkkër ji daw jël si. <laughs> <laughs> mais Modou Koumba ci sutura la Adja tey li ñu bëgg waxtaanee. Uh-huh. incha allah ñu waxtaanee lu jëm ci wàllum xaaf muy xalifa Ababacar Sall. léegi nag dañuy def benn rappel ci xalifa Ababacar Sall ba la ñuy ñëw ci li xew lépp ak li ñuy teg ci deram bi gannaaw conférence de presse bu euh, F24 bu dee yaa ngi fàttaliku di doon topp information yi. Uh-huh. bañ fa jógee ci lañ def benn rassemblement def naa place de l'Obélisque la xuma fan ba gars yi di ko yuuxoo ñoom Abbas Sall euh, ñëw di di di ko kii naan bàyyi leen xalifa mi ngeen di yuuxu après ñu dégg ay rumeur ci Barthélemy Dias ak euh, président Macky sàll gise nañ ci kër doomam ba léegi ñu daal di ciy tudd daal mbiru xalifa yu bëree bëri ñu dem ba yàgg Ousmane Sonko def conférence de wane ni xa euh, maanaam am na benn leader politique bu dee demoon gisante ji ak président Macky Sall waaye wax ci lam ci wax dégager ay responsabilité ñu dem ba yàgg xalifa Ababacar sàll nag wax ji commencé ko sonal mu ni gise bi am na te kooku naan yëguma yëg na après xeex bi di wéy ci internet bi saaga yeeg yeneen yu ni mel léegi nag après dialogue bi bi ñuy wax ci candidature nañu bokk ak bu ñu bokk ci la defee eh, kiyam boobu ci Pape Alé daan ni man moom ak lu mën a xew mu ni ko ndax bu ñu defaraatee processus bi pour ñëpp mu ni man daal naa bokk rek loolu ba léegi am lu mu ko indil léegi nag bi saaga yi baree ba baree ba bare nag ci la xalifa génn bi génnam bu barki dem bi muy wax ci wàllu détenu politique yi ci la nag reewande jër ta jaay ku nekk mën ngaa maanaam daal réewande gi gi nit ñi di jaay di ko wax li ñu koy wax man naa reewee noonu wax li muy wax mu nekk nag mu ni mbubb la ku mu neex mën nga koo sol xalifa kenn daaw ko déggee muy waxee ci ton boobu xaw ma nag ndax bousculé bi moo bare ci internet bi ba mu waxee noonu xaw ma lu mu ci doon léegi nag euh, euh, am na ñu def ñu bari ñu def vidéo ci moom mais dañ ci tànn li ci gën a rafet ndax ñun duñ dugal ay saaga mm-hmm. Mollah def na ci vidéo am na nu mu ci waxee ñi ci des bari na ñu déglu laa taxawaay bi mu gisee ci xalifa euh, ginnaaw bi mu nee lu tax ñu libéré détenu politique yi après ñu del siwaat gis nga fu mu nekk nii xalifa Sall def conférence de presse spéciale pour naan waaye yéen génne yi ñuy génn nii fu ñu ko teg fu ñu teg génne yi donc gis nga daf yéen il faut ngeen nekk nit ñu bokk ci ay patriote laa wax nekk leen nit bu leen nangu dof yële di leen yóbbaale lii nii dafa arrangé tout le Sénégal yàqkat yi fi yàgg nag arrangé wu leen moo tax génn booy sax da leen metti Khalifa Sall lan kii laa trempé dans kafe lan moo ko metti ay booy yu génn nga naan ay nañ lijjanti nu boo yi di génnee lan moo tax boo yi di génn il faut faire attention fait faites beaucoup beaucoup attention yéen jamono ji jamono ji waa APR ñoom ñoo yàqule APR moo tas ña ngay message ña ngay woowante ña ngay envoyante message dañoo tiit jamono ji tiit bu tar parce li nga xam ne dañ ko tegoon Ousmane Sonko ci ay droit am ak ay devoir am ñu delloo ko mais Ousmane Sonko demul élection Diomaye Faye moo fi ne fu mu fu mu newoon Sonko ñu libéré ko Diomaye la wax ñu bàyyi ko ci kaso bi Diomaye Faye la wax xëccoowul génn xëccoowul génn wootewu ko neewul kaa leen génn ma nang non xëccoowul génn donc Ousmane Sonko fu mu nekkoon ma nga fa yokku ci dara changé wu ci dara nay leer lan moo tax Khalifa Sall boobu ba léegi tiit bu mu déggee dialogue boobu ba léegi dafa tiit moom def na dialogue am inter lijjanti intérêt personnel am dem na ci élection yi na may ni di jàmm nga ne kenn du fi dialogué pour libérer détenu politique yi nga ne kenn du fi dialogué pour génne fichier électoral nga ne kenn du fi dialogué mais loolu leen di tiit lan ngeen di tiit kon yéen boo leen sañoon prisonnier politique yëpp des ci kaso bi boo leen sañoon yéen ñu Ousmane Sonko dee ci Omar bii benn la ci vidéo yi rek waaye bari na lool moom Khalifa bari nay attaque jamono bi moom mooy leader bi ñu gën a attaqué ci réseaux sociaux dem na sax ba ba mu fi demee Paris gis nga waa ko fekkoon ci biir euh, fa mu doon waxtaan ni ko lu tax nga war Ousmane Sonko léegi nag ndax kàddu gi mu wax war naa jar ay attaque mooy lu tax ñu libéré booy daf mel ni am na waxtaan wu am nañ ñu ko leeralal moo waral lii lépp. waaw xam ne tey Khalifa Sall. moom suñu borom dama jàppoon ni ci politiciens yi mën a am mujj gu rafet ci politique lay bokk. Hmm. mais malheureusement mu ngi koy yàq. mu ngi koy yàq. mu ngi koy yàq ah moom. waa parce que xalifa ku ñëpp rusoon la. Mhm. même boo àndul ak moom ci politique rus nga ko doo daawoo dégg sax nit ñi di waxee ak moom nenn ñi même bi muy wéy ji dialogue am na ñu àndoon ci dialogue bi parce que man mos naa ko wax mooy moog Sonko danoo bokkul problème te ñaar ñu bokkul problème mu ñu bokk solution mu mu jàppee ni dialogue solution am la mu dem ci. dama bokkoon ci ñu ko nangul bi mu demee tenir discours am waxaale ba waxaale les détenus politiques ci jamono jooju. Mhm. te xalifa dafa mal placé. Mhm. pour di wax ci mbiri détenus politiques. waaw du mbiri dil ak ñoom parce que bi muy génn neneen ki ko signé mooy metre maître Khassimou Touré xalifa bis boobu di dimanche presque dix huit ba une heure du matin diggante Rebeuss ak Parcelles Assainies mhm. mbooloo moom gëj nañ gis mu topp ab détenu politique ci politique mhm. pourtant jour boobu sénégalais yi malgré li ñu ko tumaal yëpp xooluñu moo def ak lu mu deful mhm. mais gunge nañ ko jàppale ko parce que danoo jàpp ni dañ ko doon merle kër xool lu mu def ak lu mu deful de mais dañ ko doon merle parce que dañ ko teg dara mu naqari sénégalais yi teg ci am yu ci Macky Sall teg mooy lépp loo xam ne ndombal tànk la woon ci politique rek mu mu dindi ko ci xalifa maanaam bu doon ci politique mbubb la bu mu sol da ko futti ba mu set ku mel noonu day mal placé pour di wax ci ay détenus politiques te lii ñuy jiñ xale yi nii mës nañ ko jiñ ay nitam parce que maison du parti yéen a ngi fàttaliku am na lu fa xewoon bañ jëloon Bamba Fall ak ñoom Birakan Ndiaye. Mm-hmm. tëj leen ci kaso bi lan moo leen génne. leen génne jarab pourtant tuuma yi rëy la. même bu dee ni yoon moo dem ba ci biir sax may leen liberté provisoire mais fan jaar ba génn fa la xale yi jaar rek génn dem ay Aysata wax na ko. parce que justice fi muy jaar ba jàpp la mën na fa jaaraat ba génne léegi nag anam ya mu la génnee. Mm-hmm. li tubaab bi naan tous les chemins mènent mooy yoon bi ngay jaar pour egg amul solo fexeel ba jaar ci yoon bi rek ba génn dem. Mm-hmm. te tey jii moom li xale yu dund nii bu dee nii génn gi da koy naqadi ba mu jàpp ni ay dil wala ay jolo mm-hmm. mais xale yi ak li waa ji nettali fii tey. Mm. waaw jar na jalago jalago jalago jalago ba deux mille cinquante. ah oui waaw. Ah. parce que bi Sonko duggee kaso daa am lu ma fi waxoon ñu bari di ma laaj lu tax loolu dama ne leen Sonko bi ne jàpp nag man dama sant yàlla. Mm-hmm. xam fu mu ko tegoon. waaw dama jàppoon dugg Sonko mooy génne xale yi ci kaso bi. ak duggam ak duggam. ok te fi jamono toll xam nga ni duggam bi maam gënul woon. Mhm. mais am na fu mu baaxee. d'accord parce que fi mu ne nii. Mhm. gëm naa ni balaa moo génn dina génne xale yëpp. te Sonko mi léegi mu génn. waaw. xam naa jombul dinañ ñëwaat bu dee temps bi jeexagul ma jigéen. Mhm. Omar mi ngi wax loo xam ne sànq dama ko wër sax gisuma ko mais ñu ngi koy partagé mooy benn vidéo xalifa boo xam ne mboolem conférence de presse yeewi askan wu mas a ba tudd baatu xale yi bu nangu nii ñuy caxat-caxatee seen réew il faut ngeen xeex man vidéo boobu amoon naa ko dem dafa ma rëccaat moo tax tey teguñu ko mais dafa mel ne xale yi kon li leen dugaloon ci biir xalifa ci la bokk waaw hmm. jamono jooju noonu daanaka mooy bi ñuy jàpp xale yi Sonko ak Yewwi as mm. ñoo doon coaliser ñoom si seen biir man nag ma jàpp ni tey jii nii Khalifa euh, ñi ko nawoon ñi ko respecté woon bari bari na lool parce que ni mu meloon la mm. tey jii nii nag fi mu egsi nii yëpp en partie Barthélémy Diaz bokk na ci ñiy joué li tax xale yi yëpp ko tey non si man gis gis waaw man gis-gis boobu laay am. Ah, su ma gisee tey jii nii su demee bay fippu ci ku daawul fippu mbirum lacc nga jooy ba xale yi sax bi muy wax kàddu yi mu yëkkati bërki démb euh, dañ koy wax fexeel ba bu fi jooy tey jii nii Barthélémy Dias moo ko moo moo moo créé affaire bi nii yëpp leneen li ma seetlu yow mënuloo ne ah moment bi euh, dialogue yi di am nga ni damay dem dialogue parce que jàpp nga ne ins boobu yow arrangé woon na la kii ne demul woon tey peut-être ñëpp gis nañ ni ñoom nee nañ du ñoom ñoo sàkku dialogue bi mhm. te yow da ngaa ne woon naa dem rek ba mu jaxal ko mu toog ak Pape Alé Niang ne ko nu mu mënti demee mën naa bokk rek kon kooku yaa ngi cherché di di régler say say problème léegi tey problème bi ñëw ñu ne dañuy dialogue ji waat loolu nar a nekk si yow problème mhm. léegi su fekkee ne yow jàpp nga ni lii dil la yow kon jamono ba ngay di ba ngay dialogué kon yow mbir mi dil la woon ci yow parce que mënu ma ne li ma def man dama koo def jaarale ko ci yoon tey jii nii loolu nar a amaat nga ne nii jaarul si yoon son yi bu nañu waxante dëgg na muñ rek. d'accord te bàyyi fipp bi nag jàpp ko sax nag wax dëgg yàlla. Hmm. billaay jàpp ko. kon daal ñu wax ko la ñu waxoon. kii noonu dina nekk fa mu nekkoon rek. te bu amee lu ku muy waxal na wax ak Barthélémy Dias moom nga xam ne moom lay àndal. voilà mi ngi noonu yonent bi ne ko woon fas waaw yàlla leen ko muñal comme ñu la jiitu muñee woon mhm. kon boog xalifa muñal comme bu njëkk ñu la jiitu muñee woon waaw euh. ndax naa xale yi mu wax nii ak fi toogoon maanaam ñii li ñuy dund <laughs> pour dialogue ñu génn jar na lii lépp jar na ko nag jar na dialogue samay hmm. ah, ki toogoon fii li mu wax day dafa metti loolu xol te ku ko dundul doo ko xam te dund nañ ko hmm. te moom dund na ko parce que hmm. xalifa nekkoon na ci kaso bi ñaata at waaw Hmm? yàgg na def na fa. <laughs> kuy sa noonu sax doo ko kuy sa noonu sax doo ko yéene kaso. xale bu góor bi toog fi nee na sàll sax mu ñu def nii. Hmm. yéenewul ko lii. kuy sa noonu doo ko yéenewuñ ko waaw non non gore loolu mooy gor. moom ki toogoon fii ñoom gor lañu. ndax nit ki la di dugal fii mu metti nga dund ko wi nga dudd wii ma ak leneen ak leneen. Hmm. nga génn ci loolu loolu metti nga am ci ay sekal. nee na buñ maytuwul buñ ko wutalul dara dina am problème. yow mi nga xam ne yow yaa ngi ci yaa ngi ci biti yàgg ci biti di def di def di liggéey kenn xamul no ñoo tëralee moom Khalifa Sall mu ni xale mais mais moom na waxtaan wu ne ci suuf waxtaan wi bëgg ñu nan waxtaan ba dee xale yi génn ndax ñoom bëgg ñoo dee ñoom ñi ngi ci jàmm te xale yi nekkuñu ci jàmm ñoom ñi ngi ci jàmm bu baax a baax kon nañ waxtaan ba génn bu avocat man de bu ma doon ñoom dinaa waxtaan ba xale yi génn ci biti hmm. gis nga képp képp kuy def ñii ñii def nii bu bu seen mbokk nekkoon foofu duñ defee nii gis nan ma may jàmm xale yaa ngi bëgg a dee ci biir kaso yi nan nu may jàmm voilà nan nu may jàmm ñoom ñëpp gis nga ñoom ñëpp a yem mhm. soo yi bu ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp a yem nan nu may jàmm xale yi génn ñu ngi rey doomu jàmbur ci biir ba pare bu ñu génne naan dialogue dialogue dialogue nan nu may ñoom ñëpp a dialogue d'accord mi ngi noonu xam naa ñu bàyyiwaale xel sax Aïssata Tall sàll raison yi bul ko fàtte ab yóbbantile dama ko fàtte woon nee nañu raison yi bàyyeeguñ ci ñenn te raison yi bari nañ ñu ci jàppoon kon loolu ñu bàyyiwaale ko xel alaaji limal naa la fi tracé boo xam ni daf mel ni xalifa depuis euh, rassemblement ak 24 bi la commencé perte li mu perte ci euh, opposition bi naa bokkam gi sax xëy na gaa yi ngi ko doon challenge di ci tooñ mais depuis bërki dem daal bi mu ne reewande jëratut a jaay kenn mbubb la ku mu neex nga sol ko daan ne xale yi lu tax ñuy génn nañ ko leeral ba léegi daal dafa mel ni ci la attaque gën a bari dafa connecté wul dafa déconnecté dafa déconnecté waaw parce que kon ñàkk connecté am hmm. mi ngi tàmbalee ci li nga njëkk a wax fa la ñàkk connecté am kii maanaam. Mm-hmm. bi Barth génnee. Mm-hmm. di taqal Sonko. Mm-hmm. génnul bàyyi ba kenn génnatul mu ñëw naan la kii doon wax dëgg la <laughs> boobu wax ja romb na. presque def na six mois. waaw muy soo ko wax. <laughs> waaw du dëgg. waaw fii it da daan wax ne na xale yi génn tey xale yi génn mu naan lu tax ñuy génn <laughs> moo lay wan ne la kon xalifa. Eh, connecté wut. parce que bu fekkoonte ne bi mi ngi ci temps bi. Mm. du laaj leen. d'accord dina xam ne li mu daan wax ne xale yi nañ génn fa mu ko tegoon. Mm. loolu moom la ñu jëmmal. Mm-hmm. loolu mooy li xew. mais nag boo déconnecté doo comprendre. Mm-hmm. li nga xam ne mooy mbir mi xam nga tamit. Mm. boo demee ba nekk mag mu am nangami at naan ku mu neex nga euh, loolu. waaw. <laughs> xam nga bu ma lay wan ne la ma connexion. <laughs> non day wax rek jaay. alaay baax non non xam nga moo lay wan ne la ba tey xamul connexion parce que loolu dafa jariñut kenn dara. waaw dëgg dëgg waaw xam nga euh, lu jekkut ci xale. mënta rafet ci mag. ok comprendre nga maanaam ab xale sax bu ko defee. jekkut moom da ko war a yar sax waxuma laag nag am mag. Euh, di wax loolu tey moo lay wan loolu lépp da lay wan rek. ñàkk a connecté nga xam ne moom la. bàccee mit nag. waaw mais xam nga. jamono jiñ toll nii. Hmm. Euh, gis nga damay delluwaat encore di wax waa Pastef ne leen. Hmm. fekk ñi ngeen mere woon yéen. Hmm. ñi ngi mer. mama boobu yéen mama sawure la bégee waru leen sax ci wax ak ñoom. lan mooy loolu. xam nga tey dafa am ñu bari ñoo xamante ni bi tey ñoom la waa Pastef mere woon. ñooñu tey ñooy wër kii di xool mer ñoom. Ah, moo lay wan ne la kon ñooñu bu ñu meree mooy seen mbégte ñooñu bu ñu ci bànneex ñoom ñoo war a mer ah, te dañu tolloon benn période boo xamante bi waa Pastef bi dañu mer su Barth génnee nga gis dangay mer boo gisee ñoom xalifa bu ñuy wax danga doon mer mm-hmm. ñoom Moustapha Diakhaté et cetera da ngay mer comprendre nga tey jii ñooñu bu ñu demee ba mer mm. léegi côté Pastef ñoom dañoo war a bégee Hmm. waaw parce que li waral meru ñee mooy bànneexu ñii parce que ñi ñee dañoo gis ni ñii dañoo commencé di am bànneex ñu mer ci loolu waaw léegi yow bul bàyyi sa bànneex googu di xuloo ki mer da koy bàyyi ak meram dégg naa la nga continuer ci sa bànneex hmm. du dëgg ñoom nañ bànneexu ah waruñoo ping pong continuer bu ñu naan leen warul leen a kii yéen a waxoon du ngeen lii bu ñu leen sax wuyu nañu focus ci li nga xam ne moom lañ nekk comprendre nga euh, toppatoo seeni malaat maanaam ñi nga xam ne génn nañ ci prison yi ñu fexe nu ñu def pour toppatoo leen et puis tamit préparer li nga xam ne mooy seen élection loolu mooy li nga xam ne moom mooy kii. waaw léegi nag léegi ñoom dañu war a wax daal ñoom ne ku mer bokkoo. léegi moom léegi euh, moom bi dafa poser ay question ku poser question. xalifa est-ce que waruñu ko woon a tontu. moo gën ay saaga yan question. maanaam xale yi di génn ci yan anam lañ génnee waa ci yan anam lañ génnee. waaw ci yan anam lañ génnee mooy anam mu ko doon laajee dafa am benn baay démb dama ko wax benn baay dama ko wax benn waay ma ne ko wax ñoom xalifa dañ anam yooyu la rek anam yan mu doon laaj waaw laajee ne nañ génn na jàpp ne ci anam yooyu lañ génnee rek waaw moom daal wax maanaam moom bi mu nee xal na xale yi génn xam moom tegal nañ ko man gis nga vidéo bi rek gis naa ah, vidéo boo xam ni wax na lu mat kii nañ libéré xale yi nañ libéré xale yi tegal nañ ko yooyu yëpp ak tamit bi mu wax naan xale yi xeex ak yooyu yëpp bi mu koy wax yooyu yëpp gis naa vidéo bi. si mais jamono ji mu doon wax ne nañ libéré xale yi. waaw fa mu ko tegoon. waaw foofu la ko ñii teg ba libéré ko moom am na tontu li moom mi laaj bi mi ngeeg tontu. ah kon ay vidéo moo koy tontu. waaw ay vidéo moo koy tontu ne ko fii la. sax moo tax booy monté ci TikTok bi moom. Mhm. mën nañ monté loolu. mais doom bàyyam Aïssata Tall Sall da kaa tontu démb. ah tontu na ko. waaw. day laaj fan la xale yi jaar ba génn. waaw Aysatu wax na ko dem fi ñu jaar Aysatu mais nag Aysatu deux mille da da da logg loggal rek de. non non fi leeralal lu bëree bëri de. mais ci wàllu justice ak procureur rek dina doxaleeg juge yi mais loolu mooy réponse état bu Sénégal. Mm-hmm. du ñun ñi ñoo bàyyi xale yi ñoom ñoo leen bàyyi wax ni lii la. tontu boobu na ko ko doyloo wala moom dafa bëgg ñu tontu ko leneen. Mm-hmm. di nga yàlla dafa sàkk waaye yamlewul. waaw mm-hmm. ah. billaahi Sonko dafa sakkanle. lu garaaw laa lay wax. Barthélémy Dias dafa dugg kaso ñu koy bàyyi xaar bëgg xaaj guddi ñu bàyyi ko ñetti nit ñëw ñu jël si ko ab taxé ko yóbbu këram arrivé pay la def hmm. booy booy yi xam ne kenn xamu leen ci politique bi ñuy génn hmm. addunaa dem di leen jëli yóbbu leen gratuitement fa ñu dëkk boole des fois ngay dinante mbagg koo xam ne yam <laughs> yam gaa yi yëguñu woon di day génn dañoo bàyyi guddi ko ci biti <laughs> boo ko <laughs> yëguñu woon di day génn bu ñu yëgoon yi doon dañ dem de Sonko mii mën nañoo bàyyi eh, ko hmm. ah gëm naa ni boo ko sànni woon tey ca buntu prison ba hmm. taximan ba bu ko yóbbee gratuitement la koy yóbbu wala mooy mooy yëgal mooy yëgal waa réew mi sax taximan mooy njëkk live Omar mën ngaa yeewu la ma nga gërëm de <laughs> waaw ndax la waaw waaw mën nga yeewu rek ñu la xam nga foofu li ma la jox exemple rek mooy hmm. fii bu ne am na fi pour bàyyi côté bàyyi moom anamu bàyyi bu ne am na ci réew mi hmm, gis nañ moom xalifa bu ñu bàyyee ko fa sëñ ko bàyyee së sédiment ah Dapho Diagne lii lan la lii du làpp sédiment Dapho ñu ngi koy nuyu. daf si am nuyu. voilà man damay faral di ko wax wax joo xam ne. boo ko waxee di la du la yokk dara da lay wàññi. Mhm. noppi ci moo ko gën. d'accord waaw des fois ñoom dañuy am occasion noppi ci dara. laaj bi am jumte la quoi. xale yi ah, fan lañ teg fan lañ teg ba kii leen loolu moom ah, erreur. loolu bu rëy la man jàpp naa ni foofu. erreur de communication def na erreur communication bu grave parce que waru ko woon a wax quoi. Mhm. na génnaat dégg na man dama am sama benn parent contre lu woon Macky Sall mais ci Khalifa Sall la bàyyee Macky Sall. Mhm. ndax bi ñu tëjee xalifa ak li nga ko teg yëpp pour wàll leen rek sénégalais am na fu ñu ko teg daal bu mu wàcc foofu. Mm-hmm. aywa mm-hmm. jërëjëf mi ngi noonu am mbégte bu baax a baax ji gërëm sama soppee yi gis naa léegi ku ma yónnee xàddee ju bari ngi leen di gërëm di leen sant. Ah. aw ma seen fay man xaw ma lu ma defal yàlla. léegi nag <laughs> Ah. <laughs> adieu Serigne Sall li ma jaaxal saa saa yu may yónnee dara. Ah. xol bi day tax. a a liggéey. xam nga yow Diop. déedéet xam nga déglu ma rek a laaj ñu tax suñu ma envoyé euh, te moom mooy loolu. Ah. te yow lii ñu la yónnee. non man nag addiya dama koy barkeeloo wax dëgg yàlla. man naa leen a may sama alalu bopp mais sama addiya ju may yónnee dama koy barkeeloo. déedéet mais buñ la ci yónnee ba xam nga loo bëggee lu barke da koy barkeeloo da koy barkeeloo jox ñu ci rek ñu barkeeloo ci nit. ay ñu joxan monté ab euh, dig ci Barthélemy moo leen tuumaaloon bu leen di jàpp. Mm-hmm. waaw bàyyi na bàyyi na leen aywa ñu ah, ñu joxante ab dig ah, ah, Adja ba suba ak jàmm mm-hmm. insha allah. jërëjëf sooy bu am na solo lool amatina solo. ñu leen di sargal yéen ñi nga xam ne rek yéen lañu bokkaloon plateau bi di sargal ñi nga xam ne ñoo nekk ci réalisation bi ku ci mel ni El Hadji Modou ne rek moom moo di Abdoulaye Top Mouhamad Fadal Laye Diallo di leen jox rendez-vous samedi incha allahu rabbi ci solution TV ak ki nga xam ne rek moom moo di Ousmane sekk ci li nga doon donc lu ñu wax lu noonu ñu ngi jéggul ndax nit ma tuuti seen mbégte moo nekkoon li nga xam ne rek moo di suma yitte suba incha allah waaw suba incha allahu rabbi ajaratu béti mub si dina fi teew donc focus tey focus à partir de 21 heures ah dama lay suivre nag. waaw aar suñu élection. waaw na ko gaa yëpp xaar élection yeeg yëpp. macha allah te à partir de vingt une heure non. solution TV waaw. waaw solution TV. maa ngi koy bàyyi xel macha allah yaa ngi ciy def émission bu am solo. donc solution TV la. Euh, donc li mooy loolu daal. man nag samedi incha allah am naa Ousmane Seck di sargal tamit Doudou Ndiaye Meng. Euh, su ngeen teem li nag xaw ma ku mu tuddee doom ji est tuddee waatu ko Macky sax. <laughs> <laughs> donc suba incha allah waay la waaw sa waay la moom dafa laa bëtt dina fi ñëw teew jërëjëf Modou ba ba ba samedi incha allah rabbi KPI moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show